Ibrahima Diagne donc euh, cantaay yëpp lañ ko may ndax ñoom ñi ngi waajal seen bés de rien 5000 nga ma yoreel fi mu toll nii <laughs> ñu ngi waajal seen bés coroog fi fi toll nii di dajale ay ndaw talag yu kenn xamul nee na day waajal bés bi am nga noo mel nag 17 avril caaxaan yow tam. waaw ah, du ay caaxaan moom bés boobu dafa fort ci ñun bés bu màgg la ci canta yëpp ñu koy waajal tonton gar mi mi ngi fi def tuubam bu rafet macha allah euh, naka ñëw fàttaliku ak ñun comme ni mu koy defee tous les jeudis tonton gar mi ñoo ngi lay nuyu waxal oustaz Assane mu génn suñu digganteeg yow xaju ci de. oustaz. na ci génn. man day fi lu ay. Ah, waaw génn ci rek yow am dëgg. Ah, génn ci rek. waxuma lu ay. tax taxul daal ngay yow rek te gérer sa garmi laay waxtaanal dafa ñëw toog ma ne ko ndax ñu ngi waajal nga diis. waaw incha allah yàlla nañ si. ñun ñëpp ñu ngi koy waajal. kon alhamdulilah. ñun ñëpp ñu ngi koy waajal. génn ci rek yow laa doog a tontu de mbay. waaw. <laughs> waaw maa ngi nuyu di leen sargal di leen ndokkeel di ñaan jàmm bu baax di ndokkeel Bijou Ndiaye di am mbégte nag jàkkaarloo ak yéen alxemes bu jot xam nga alxemes yi moom dangay yàkkamte ñëw agsi ba gis nag say dëkkandoo yoo xam ne yi dangeen a soppante te sama maam ne jàkkaarloo balaa neex ñi jàkkaarloo bañ a bañ te bii jàkkaarloo dañu bëggante moo tax daal maa ngi di ñaanal yëpp ngeen am jàmm réew mi am jàmm nuy wax nag nag ñi ngi tàbbi nag di fàttaliku tam ku mag mu Cheikh Béthio Thioune mu baax mi maa bi ma agsee léegi li ma am yëpp dama la ko war a terale fekk fekk ñu nekk ci ci sargal bu nu ko sargal dendale ko sëñ Saaliw te moom fu mu ne sëñ Saaliw fa ne kooku dëgg-dëgg sàkku ci moom ñaan rek la ñuy kon kooku tey bu bu tàbbee ci bës boo xam ne bi bés bu màgg la boo xam ne bi dinañ ko faram-fàcce ci kanam àddina yëpp war nañ ko seetaan màggal ko ba pare ñaanal ko yàlla mm-hmm. waaw dëgg-dëgg daal ku ku ku bari njariñ dem na koo xam ne kii daal njariñam addinam yëpp xam nañ ne moom moom njariñal njariñal kese rek la woon ci la dund rekk ba dem kon ñu ñaanal yàlla na yàlla na dajeeg Serigne Saliou. amiin foofu rek dina gis xaadimu rasul. dina gis yonent tubaarkal dina dem ci àjjana ci kanam lay doon ak tonton Garmi ñu fàttaliku Cheikh Béthio ndax comme euh, ni nga ko waxee moom euh, formé na xale yu bëri récupéré na ñu bëri ñoo xamante ne bu fi nekkul woon ci sànku la ñu jëm mais da ngay gis ni mu leen di récupéré boole leen man li ma gën a neex ci cantaaku nii mooy le fait que ñu nangoo liggéey et puis di xëccante mm-hmm. bu kii amee dara xëcc mu évoluer loolu man c'est c'est un exemple boo xamante ne daf ma neex torop ci ñoom tey am na ku xolam nar a seddu guy ci plateau bi waaye balaa tonton Garmi di fàttaliku ngay daanu ba dootoo mën a wax ñu ànd ak yow euh, ci actualité euh, bi nga xamante ne am nañu ko tey notamment euh, Covid 19 bi nga xamante ne démb ñu ngi leen doon wax Brésil dañu dépassé benn cap 4195 personnes décédées fa ci benn fan ci Covid 19 bi ay million doomu aadama am feebar bi seen président nag ba léegi xaw ma yox yoxi laa ko mën a tuddee xaw dafa gëmagul Covid bi donte moom jotoon na ko am sax. Euh, ba ñu faj ko mais daal feebar bi fulla bi ci ñeneen ñi def ak xeex bi ko yeneen dëkk yi di xeex moom concentré wu ci noonu dëkkam daal da ko bàyyi noonu rek mu mel ni dara xewul ñoom nag léegi dafa am bataille bu nga xam ne dañ ko bëgg a commencé contre Covid 19 bi ñoom ak Argentine ak Chili maanaam Amérique du Sud. effectivement euh, naa ñu njëkkee rek rek mais bàyyi ñu dem ci Covid bi ba pare bu ñu paree ñu ñu tëjee rek rek d'accord euh, donc demee c'est-à-dire euh, Brésil par exemple bijou démb rek yaa ngi koy wax bokk na ci dëkk yi nga xamante ne ñoom la Covid bi gën a sonnal euh, bu ñu xoolee diggante mi mars ak léegi par exemple jóge nañ ci pratiquement 2000 morts jàpp 4000 morts par jour mu doon comme ay chiffres yu extraordinaire yoo xamante ni euh, kenn comprendrewul mais bijou man yaakaaroon naa ni démb bi ñuy wax ci chiffres yu mel noonu dina tax président bi jël dogal waaye ba tey moom daal écarté na lépp lu jëm ci wàllu confinement sanitaire échelle nationale bi yëpp parce que li mu mais man comportement am laa comprendre en fait comportement am bi nga ñàkk comprendre moom la même population bi mu jiite ñàkk comprendre parce que des gens qui meurent euh, euh, comme ay weñ yoo xamante ne dañ leen di pomper ñuy dee tous les jours et puis yow nga ne pare woo pour jël benn mesure xam nga loolu itamit problème la boo xamante ne moom ñoom loolu la ñuy euh, ñëpp loolu la ñuy wax mais moom li muy wax mooy bu ñu tëjee itamit économiquement day créer ay dommages yoo xamante ne moom après duñu xam xëj na yan solution la ñuy adopté pour quatre mille personnes par jour quand même dafa bëri dem nañu ba sim cimetière yi euh, daanaka amatul noppalu dañuy suul par minute ndax nit yu bëri yoo xamante ne ñu ngi ñàkk seen bakkan mais moom daal wax na ni du am confinement national euh, ndax nag li nga xamante ni moom moo di économie bi am na ci yoo xamante ni du ko jël du ci jël ay risques waaye également ñenn ñi sax dañu dem ba wax ni euh, armée bi ñoo war génn xëj na àndandoo ak gouverneur yi jàppale leen ngir ñu mën a jël yenn ci ay mesures restrictives euh, parce que nit ñi ni ñuy deewee foofu metti na metti na torop torop torop fi nga xamante ne euh, moom moo di moom moo di euh, Brésil Argentine également ak Chili ñoom tamit fi mu toll nii feebar bi daf leen xaw a sonnal waaye ñoom nag du tere ñoom ñu mën a dem ci yenn ñoom dañuy préférer jël yenn ci ay mesures di xool naka lañ koy adopté ndànk-ndànk ngir noo seulement mën a sauver nit ñi mais li nga xamante ni itamit moom la ñu mën a sauver ci lu jëm ci wàllu euh, bakkan ñu def ko également ñëpp seen farata fi mu toll nii vaccin bi la fexe na naka la ñuy def ba jot ci euh, vaccin bi ndax li nga xamante ne moom moo di vague de contamination bi dafa bëri euh, ci dëkk yooyu fi nga xamante ne moom moo di Argentine par exemple seconde vague bi dafa nekk di def ay ay ay ay ravage donc ñoom interdiction yi ñu jël mooy interdiction de circuler la nuit maanaam ñun li ñu amoon comme couvre fa ñoom moom la ñu am bar yi yi ñoom dañ koy tëj à partir de 23h euh, bu ko defee nit ñi daal di euh, mën a euh, toog yenn ci ay activités yu bëri ñu dakkal ko li ñu mën a amalee ci kër yi ñu amalee ko li nga xamante ni moom moo di ci espace fermé yi fu ci mel ni ay salle de sport ak yooyu du ñu jël plus de dix personnes ñoom daal école yi rek la ñu tëjul ak li nga xamante ne moom moo di transport en commun yi ñi nga xam ne dañuy liggéey liggéey yi mënul ñàkk rek lañ ko jagleel fi mu nii ngir ñu mën koo amal ñu mën ci dem bu ko defee euh, li ki des ñeneen ñi mën a toog ci seen ay euh, kër ñu wax ni Argentine ci mercredi bi rek par exemple 22000 cas la daal di enregistré 22039 cas ci 24 heures loolu tamit doon lu bari euh, seen bilan wu mort fi mu toll ni yegg na ci 56832 personnes yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ci jàngoroy coronavirus mu doon loo xamante ni lu metti la mais li metti ci ñii moo neex ci ñeneen mën nañu dem ci deuxième élément bi Elhaj Malick parce dafa am ay produits ay innovation yoo xamante ne ñoom ñoo gën a dox ci Covid bi ma euh, masque yi par exemple dafa dox ba nga xamante ne et c'est partout Sénégal ak France Amérique ñëpp masque la ñuy gën a euh, utiliser désinfectant yi également c'est partout mais drone yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jëlee li nga xam ne moom moo di garab par exemple Almadi yóbbu ko RFM Médina yooyu dafa dafa dafa dox ba nga xamante ni ñoom ñoom xam naa ni Covid bi bu jeexee Euh, thermoflash non thermoflash moom léegi bësam bësam <laughs> thermoflash moom léegi bësam euh, wàññeeku na bu baax a baax a baax te li ci li ci doy waar mooy am na ci yoo xamante ne par exemple en 2015 ñi ko defar ci lañ ko defaroon mais doxul woon comme yenn comme comme comme yenn ci kii yi nga xamante ne mën nañ ko raxasoo am na ci yoo xam ne ñu ngi ko inventé woon depuis 2015 lave-mains yi mais euh, doxul parce que nit ñi ñu ko woon torop au sérieux mais bi ñu demee ak Covid bi comme on disait nañu moytu wàññi la ñuy gis woon mhm. mais léegi nga dem ba nga xam ne poignée bi bu ko kii laalee mën na jël virus yow nga laal ko mu wàll la da ngay ñëw rek dugal sa loxo euh, ndox bi génn détergent bi génn nga raxasu donc loolu ak Covid bi dafa dox bu baax a baax masque yi par exemple Emmanuel Macron fu mel ni France euh, ay population meroon nañ benn instant parce que ñoom dañu mas a def lu ñu tuddee mensonge d'état pour wax ni que masque yi amul sens donc loolu dañ ko waxoon pour bañ askan wi dem sëqatoo masque yi après médecin yi buñ ci bëggee jot duñ ci jot ñu euh, ni ñu sëkkatoo comme ni ñu sëkkatoo woon lekk yi ak dañuy confiné psychose am nit ñi naan fii ak 3 mois kenn dootul amati loo lekk supermarché yi boo dem lépp ay vide ay benn mbuusu pat nga fay fekk ak yu kenn xamul loolu lañ doon bëgg a éviter ci masque voilà loolu lañ bëgg donc loolu indi woon na jaxasoo nag si tu te rappelles période boobu parce que finalement dootoo xam ndax nga takk masque wala doo takk masque doo xam ko waaw waaw bi parce que mooy explication bi ñu joxe rek bëgguñu woon nit yi yëpp dawandoo jëlandoo masque yi après corps médical bi bu ñu ko soxlaa ko am donc ñu waxoon ni que masque bi mënu ci dara bi ñu demee nag ba xam ni am nañu nombre masque boo xamante ne war na leen mën a permettre ñu wax nit yi nag mën nañ ko utiliser ci la nit ñi commencé utiliser masque donc masque moom à travers le monde bokk na ci li gën a dox mais leneen loo xamante ni dox na également bokk euh, dafa dox bu baax a parce que boo demee ci yenn dëkk yi mag yi par exemple bu leen euh, coronavirus bi daanelee mën na jàpp seen yax yi ak seen yenn partie donc ñoom itamit dañuy dem ci loolu mais ni ma ko waxee woon sànq drone bi nga xamante ne moom mooy livrer médicament itamit bokk na ci li nga xamante ne moom moo gën a dox début bi euh, Dakar par exemple gis ngeen gel hydroalcoolique yi nga xam xam ne mm-hmm. léegi 1000 francs lay jaxaw 500 jaayee nañu ko sax 10 000 masque léegi ñett yi 100 francs te bu njëkk bi jaayee nañ ñu benn masque 500 donc te comme pour dire lu nekk dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoo ciy profité thermoflash temps normal est-ce que jarul 7000. thermoflash dem na bay jar benn 150 000 180 000 tonton Garmi ma am sama benn frère nga xam ne business bu mu gis ne day am xaalis rek da ciy dugg Émile Pierre Ndiaye maa ngi lay nuyu damay nettali sa histoire bi fii mu woo ma nañu investir ci thermoflash jox ma 2 millions wala 3 millions ñu jënd ko. ma ne ko mu ne ma da nga ñàkk kersa yow maa lay indi liggéey lii da nga siy gagné cent quatre-vingt mille lay jar man ne ko demal investir <laughs> léegi moom dafa jotoon jënd am bénéfice bu bëri mu jëlaat bénéfice bu dugal léegi le temps yooyu di ñëw kenn jëndatul kenn jëndatul thermoflash <laughs> léegi bu ma ko nee njaay thermoflash mu ne ma thermoflash dama la ci rey <laughs> lu jóge ay 7000 francs war a àgg ba 80 000 180 000. dafa dafa ah, demoon nga ba nit ñi boo loo leen fay ci Thermoflash duñ ko jaay. parce que dañuy wax ne 100000 bi mën naa ci am yeneen 50 000 yu ma ci teg. en on risque de tout perdre. <laughs> mi ngi noonu thermoflash moom toj na fi Ndiaye thermoflash ñu ngi lay nuyu. et du woon Sénégal rek ah partout <laughs> mais c'était partout en fait dëkk yëpp la woon. moo xam dëkk yi développé ak yi développé ku nekk da nga doon. corona daal bu ñu ci jëleewul dof ñun ñëpp. Mm. lu ñëwati dina jàll. doguma la. kii li nga andi dafa am solo. Mm. coro boo déparé sa Brésil ba fi nga teere Bolsorano Bolsorano mii. pour man dafa ñëpp. waaw est mais boo Oustaz boo ñëgee nga corona kay parce que booy wax économie économie bu ñu koy wax doomu aadama yi ñoo tax. Mm. boo demee ba sa réew ñii dee nañ ñii feebar nañ kuy tal économie. Mm. kenn du tal économie. économie day daal donc balaa ngay wax économie ñii nga xamante ni ñooy dundal koom bi faaw ñu nekk ci wér. Mm. ba mën a dundal comme ni comme ni mën a dund mooy ñi ngay dee mais lañ mës a image bu doy waar néew yi ñu teg leen nii si mbedd bi kenn sañul wax donc dafa nekk loo xamante ni wax fa dëgg yàlla metti na ba fa nga xamante fa la fa la fa la metti yam beneen bi li nga wax sànq ni mu jëm ci wàllu euh, masque yeeg nangam sàngam nit si mm-hmm. réew mi fii surtout xam nga lu tax mm-hmm. parce que dañ nekk si réew ñu xëy ñu ne mbas am na mm-hmm. ñu ne docteur yi nee nañ ñun def nangam ak nangam ak nangam ak nangam. ñu di ko def nañuy dandante nañuy takk ay masque nañuy laal gel te jusqu'à preuve du contraire ba fi ñu toog nii di wax mbas maa ngi si réew mi. Mhm. donte la benn kaala si waxin bu dëgg kon ñi nga xamante nii tey jii nii ñoom ñoo jiite dañ war a joxe le bon exemple. Mm, parce que lu moo tax may wax loolu. parce que boo xoolee fi mu nekk nii dëkk bi ni muy doxee. semaine bu jot bés bu jot. rassemblement bés bu jot meeting bés bu jot nangam ba pare te ñu ne mbas maa ngi fi te ñoom ñu war a joxe la bon exemple oh. loolu tamit day nekk la nga xamante ni c'est contradictoire oh. mm-hmm. parce que nit ki aussi doo ko ne moytul lii moytul lii moytul lii mën na def lii ak lii ak lii ba pare yow nga ñëw nekk si loolu du dëgg te bi ñu si génnee ak léegi si wàllu euh, état d'urgence ak sanitaire ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen yàggul kon ndimbal na sa fekk loxol borom. Mm. moo tax léeg-léeg population bi ay jamono si ginnaaw boo waxee ñi naan mbas mi nii ñi naan mbas mi la man lii may faral di wax rek lu si docteur wax man loolu laa gëm loolu laay jàpp noonu laay doxale ndax seen xam-xam la te ñoom la si borom bi subhanahu wa taala def seen xam màcc jëm si wàllu woowu ndax ku feebar si waxin boo demee léegi hôpital ñu xoolal la sa yaram ne la moytul lii jël bindal la garab yàkkamti woo lul dem jëndi ko mm. ngir mën a am wér du dëgg léeg-léeg nga dem pharmacie bi ñu ne la amul nga wër pharmacie pharmacie bu ne di nga fa dem ba am ko kon kooku bu la waxee moytul nangam ak nangam ak nangam loolu da ko war a moytu mais itam ñiy jiite ñoom tamit nañ am li nga xamante moom moo di responsabilité. ci nee na yi parce que tamit loolu moom mooy dëgg. la pédagogie par l'exemple. merci la pédagogie par l'exemple na nga fexe li El moom Mamadou mbay doon wax garmi mi mii ne mbër am na nu muy mel boo ko muy ñëw doo laajte ana mbër mi. mbër bu nekkee ci mbooloo di ñëw boo ko séenee muy ñëw rek da xam ne kay mbër mi maanaam da ngay joxe le bon exemple fa ngay teg sa tànk di ko xool di ko xool nooy doxale nangam nangam mais parce que bu fekkente ne lépp itam dañ ko bëgg a politiquer du sotti lépp buñ ko bëggee politique yi di sotti parce que réew mi néew réew mi réew mu néew doole la amuñu ay moyens yu bari amuñu nangam ak nangam mbas mi wane na suñuy suñuy insuffisance si lu bëree bëree bëree bëri kon ngal la ñi nga xamante ni ñoom la yàlla tegandi yëf yi seen loxo nañuy bàyyi xel bu baax ni ñuy doxale xam ne askan wi ñu ngi leen di bàyyi xel ñoom itam ñu bàyyi askan wi xel damay faral di wax ne bu yàlla jëlee loo xamante ne nii si pouvoiram la dénk la nga jël dénk ay nit ñooñu jëmoon nekk ñi nga xamante ni lu responsable la sam dégg naa maam Abdou Dabakh radiallahu taala anhu bés mu wax ne ñii nga xamante ni dañu yor ay ndomba tànk ak yeneen ak yeneen nañu xam ne bëy bu dee sa fuuta si waxin wala sa Casamance si waxin wala sa Bawol sa waxin ëllëg kii jiite danañ ko laaj bu taxoon bëy woowu faatu ndax xiifa ka rayoon ndax mara ko royoon ndax leen ma ko royoon eh. mm-hmm. mala waxuma doomu aadama mi nga xamante ni lu yàlla bind moom la si gën a fonk mm-hmm. kon ñu jàppale nit ñu def preuve de responsabilité xam yi ñuy def ak naka la ak la parce que tamit am na la nga xamante ni bu xësee ba amaat mm-hmm. yàlla bu mu amaat mais bu boobaa coow dana leen topp loo xamante ni duñ xam fu ñu ko waxee absolument parce que tamit li ñuy def ñëpp a ngi ciy teg seen bët nañu dawale responsabilité te xam ne lépp la nga xamante ni suñu borom dogal na ko si doomu aadama bi faaw dafay am a jiite yàlla xam na ko jiite yàlla xam na ko hmm. lépp rek ñu wuta ko si li nga xamante ni moom moo di dignité foofu laay jeexale salaa sam dafa waxoon ne uqdul xawaïja bi izzati a hmm. ñu ne ko lu tax mu ne fa innal umura tajri bil maqadir nee na looy wuta wuta ko dignité ñu ne ko lu tax mu ne yàlla noppi na démb laata tey di ñëw hmm. kon na nga fexe ba looy wut na ko wuta dignité lu mu la jox tamit nga téye ko dignité ba ëllëg boo jàkkaarloog ñi la ko jogo joxoon doo sëgg doo rus doo sëngeen important. jërëjëf oustaz ba pare ku ne nag looy def xool xool ko ci sa bopp en fait parce que souvent nit yi dañuy gisal tellement seen intérêt bopp ba ils essaient pas de se mettre à la place des personnes yeneen nit yi nga xamante ne souvent ñoom ñooy subir conséquence su seen actes yi ñuy poser tonton Gallé. oustaz euh, euh, euh, Bijou Ndiaye dafa joxe conseil boo xam ne bi conseil bu am solo la. Mhm. te xam nga dëgg dafa neex. soo ko dee wax doo doo ci doo ci gàtt day day tegu ci yoon léeg-léeg dara xew nga tàbbi ci sax. ñàkk bañ a mën a dem tax nga dem ca mais boo demee sax da nga cee am kersa. mënuma caa bañ a dem. mënuma caa bañ a dem mais bu ca jógee da nga cee am kersa. dëgg la. oustaz am sa mbokk mu jege la mu am ko wàññi ci moom mu jege la lool te boo xewlee moo cay gën. Hmm. loo xewle moo ca gën te pour nga déplacer wu dem ca loola. dangay xam ne yow mi toog di yedd gaa yi ne dañoo war a toog. Mhm. suñu la ca gisee dañ naan kii mi ngi yedd gaa yi ba pare. mi mhm. ngi dem di ñëw fii. Mhm. soo demul ca loola. kooku mën na la mën mën na la bàyyi sa àddina ak àllaaxira du seet sa position. ne da ko cof. waaw ne da ko cof du seet sa position. moo tax moo tax moo tax dañu nekk ci ci ci milieu boo xam ne bi milieu bu doy waar la ñun. trop moo tax ñun nit ñi dañu war di comprendre. di dimbali di nu jàppale. mais nag bu nu jàppale tam nag oustaz euh, yow mi yow mi mu nekk ci fay yow nga jàppale sa bopp te tënku ci dëgg rek. Mhm. mooy li nga wax nii. mooy mujj. muy mujj. muy mhm. mujj mais vraiment bari na yoo xam ne yi ne yàlla noppi na démb bu moment bi jotul c'est pas moment. Mhm. dañu war a xaar bu moment bi jot ngi def ko loolu moo jaadu mais fi réew mi moom am na bari na yu xew nga wax nga ko wallaay laaju ko. dëgg la laaju ko laaju ko laaju ko dañu war a war a bàyyi ba yëpp jeex lu ñu war def ñu def ko ci ak ak. ak sunu teyu bakkan waaw te xam ne yàlla noppi na xëccoo bi ki war a yor yàlla bind na ko yàgg na te ki war a faw mu yor destin yëpp la ñu ba pare kenn mënu ko teeyor tëb dal plongé lépp da ngay dund sa bos nit ko yàlla nammee sàkk ñu si at bu amee ñeent fukki guddi si biiru ndeyam nañ ma jéggal si kàddu bi si la ñuy bind léppam ba bind ndax nitu àjjana lay doon walla nitu safara rufi atil aqlaamu wa jaffati suxuf salaay salaam nee na bu fekkente ne dundu doomu aadama lu ñuy bind la nee na bind nañ ko ba pare xaliba yañ ko doon bindee teggi nañ ko te daaja wow na. dara du si changé. kon nit ñi dañuy demee li nga xamante moom moo di xel comme ni Garga wax dëgg tamit moo neex yàlla. dama bëgg dëgg si maam Tabax radiyallahu anhu barka démb. ma si nuyu maam jigéen doy ñoo ñoo ko doon seetaanandoo ci almalikiya di expliqué benn jour mu ne Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala dafa toog ak mag ci sa tiwaawan waaraate. bi mu ñu sa ëllëg sa gars yi ñëw naka ah mag ñi ñëw naka ah sang bi sa waaraate bi démb bii tàng na de reer yi sax dañ ko mujj a ñoo ñu ne ko ah ñu ne ko waaw waaw maanaam dañ ko bëgg a wax ne waaraate bi tàng na suñu mënu leen wax leen loolu waaraate lam ñu ne ko ah ñun da waaraata lañ ko jàpp mu ne ndax li ma fi wax génn na qaala allahu ak qaala rasulullahi sallallahu a wa sallam ñu ne ko déedéet si génn si de mu ne kon du waaraate te dara du ma tax a romb dëgg yàlla gi ngir lu neex doomu aadama gis nga dëgg du la xañ sa wërsëg dëgg du la teree doon li nga war a doon mm-hmm. dëgg du la teree am li nga war a am te réew mi dafa jot fi mu nekk nii lépp lu ñuy wax rek ñu teg ko si dëgg buñ ko teg si ay sos buñ ko teg si ay fen nañ ma jéggal si kàddu bi buñ ko teg si wax nit ki lu ko neex bëgg si moom alal wala bëgg si moom intérêt wala bëgg si moom ak pal yàlla mooy joxe alal ak ndombal tànk kenn du ko joxe tey jii am na loo xamante ni bu yàlla ne day egsi si egsaay dex mii nga ne du fi egsi yàlla dana la fi jële jëf egsaay dex la mu ko war ñuy xale niñ naan bu yàlla rëddee nga effacé mu rëddaan nga effacé mu effacé la soog la effacé fii la koy rëdd nga ànd ak moom bi dem di ko gis te doo si mën dara kon nit ñi nañuy demee sago toujours réew mi fu toll ak àdduna ba yëf yi ni muy doxe dafa laaj sago nañuy demee sago nañuy demee sagesse nañuy demee surtout responsabilité parce que dund doomu aadama du caaxaan dund doomu aadama du lu ñuy fowe dund doomu aadama du lu ñuy patam patamee kon nañu gën a góorgóorlu ñun ñëpp laa wax mm. en commençant si ñun ñi bokk ñi ci réew mi waaye itam ñi nga xamante ni surtout ñoom ñooy jiite parce que lu am ëllëg ñoom lañ koy laaj duñ ko laaj kenn la ñuy laaj li waxtaan yi yëpp oustaz xam naa xam naa di nga ko gën a yaatal ci conférence yi ngay wàcc ci koor gi. conférence euh, no ah, dañ koy def ren dina am mais avec distanciation sociale rek non non mais ren dina am ndax ndax ren da ngeen di préparé war na mun am mun nañ ko def ci benn salle boo xamante ne comme nañu defee master class yu barki dem ku nekk da nga sori sa moroom un mètre takk sa masque. ah man ah, waaw idée la. responsabilité la rek. responsabilité loolu laa lay wax. master master class bi ñu koy bi koy def. Euh, nit yi euh, salle bu doon jël 200 personnes par exemple. Mm. dañ ko wàññi ba 100 personnes. Mm. Euh, bi ñu ko defee nit yi chaise bu ne 1 mètre nga soree sa morom et ñu fa nekk ñëpp takk masque mm. sooy dugg laal sa gel donc. war nañu mun a adapté wu. comme ñu ko defee si yeneen événement yi ñu defee ko ci conférence yi bu ko defee nga ñuy invité ñuy ñëw. responsable ma garde service d' accueil bi. responsable indi la ay hôtesse. waaw ah, ndax ginnaaw xaaral di leen fàttali fàttali rek bu dee yéen ak soog a dab ni nekkuñu woon ci diina ji sax mais actualité day collègue religion ñi ngi doon waxtaanee actualité euh, notamment produit yi nga xamante ne euh, ñoom bi coronavirus bi ñëwee ci lañ am seen boom économique ci lañ am explosion te euh, pourtant quelques années auparavant bi ñu ko créé nit yi gisuñu woon intérêt bi mais chaque fois monde bi dafay évoluer te ci ay problème ci la yenn solution di juddoo coro hmm? point covid dina ñëw ci kanam. waaw point covid mën nañ ci ñëwaat ci kanam en tout cas mën nañ xool rek rek rek moom dafa dafa dafa dafa jaxase Suisse bi fële ca MMA bi. waaw mu ngi ci troisième victoire ba waa ji ne bàyyi naa yaa gagné. mu ngi ci troisième victoire mu ah rek kat am na macha allah xale am na kat. làpp na ko de. donc ku mu dajal waxuma la rek waaye mu ngi ci troisième victoire moom. may ragal mu rey làmb ji lii buñ ko bëggoon a buñ ko bëggoon a nu mu waaw day day day day te loolu moom mënuñu après nag dina baax xëj na ci ñenn ñi ñu mën a génn euh, dina tax ñu ñu ñu ñu jaayaat drapeau Sénégal ci beneen anam comme ni nga xamante ne noonu la ko Reug-Reug di defee égal euh, par exemple Bombardier su ma juumul de jotoon na fi dem MMA ak yooyu c'est bien mais euh, ñun xam nga on a déjà notre c'est une certaine évolution pour mbër yi ndax boo dee xool cachet yi peut-être foofu lay ëppee foofu ngay internationalé Thank you. comme suñu footballeur yi rek c'est vrai que fii ñu ngi football mais tey boo demee au niveau international ci ngay gën a gisee sa bopp tu vois et yaakaar naa ni aussi du ñëpp ñooy mën a sax dem pour ñu sélectionner leen pour ñu dem ci MMA bi mais dina baax ci poosu ñenn ñi. waa dina baax ci dina dina dina dina baax ci ñenn ñi mais aussi daf ci am dañu am ñoo xamante ne tey dañ leen yaakaar pour ëllëgu làmb. te rëg-rëg mii ci la bokk. Mhm. tey aujourd'hui bu jëloon léppam focus ko ci MMA forcément dina am euh, dina am dina laale ak ak ak làmb Sénégal Sénégal mhm. day mel ni tey ñu ne woon xale bu mel ni Diène Kayré xale bu mel ni Sa Thiès ku mel ni Boy Niang ku ñu nga xam ne ëllëgu làmb dem bi toog du buñ demee nañ ko defee comme ñuy def ñëw équipe nationale buñ demee fële championnat ba match équipe nationale après ñëwaat ñu jàppee làmb ji équipe nationale comme ça ñoom ñu gañe làmb ji gañe waaw loolu daal laa bëgg waaw ni ma waxee baax na tonton gar <laughs> mais c'est que leen def ci ne xam nga euh, làmb dafa am règlement yoo xam ne daf ci am solo mhm. am na règlement yoo xam ne mën na nekk bitim réew te du nekk suñu réew mu mukk parce que fii am na foo xam ne sax soo fa dóoree dañuy arrêté làmb ji dox la avertissement parce que kenn du dóor ci ndong mhm. am na yoo xam ne kenn du ko def te kii man bi ma gis mu sport bi ma gis ma def bitim réew rek la xaj mhm. parce que mënu nekk ci réew mi mu nekk MMA bi dafa metti ci yow doy na waar tonton gar mi lu metti <laughs> yow moom xam naa ne MMA doo ko seetaan <laughs> en tout cas c'est une certaine évolution pour mbër yi mais bu mu tax ñu fàtte suñu làmb ji fii euh, ndax moom rek la ñu am ñun suñu sport national la euh, ñooy boroom nekk loo xam ne daf ñu neex bu amee ñëppay toogandoo ci kër yi nekk en famille ànd ak stress bu rëy surtout bu sa mbër di bëre mhm. da mel ni ku toog ci nen émotion boobu moom yee dafa mel moo tax làmb bu <laughs> damay bàyyi euh, mujjee bàyyi daal làmb mbër di bëre yaa pare rek. ah te waaw. comme li ñu dal dimanche bi baas. waaw dañu dañu def nag loo xam ne lii Sénégal yi kenn rafetlu ko. Mhm. parce que xam nga lam boo ko organisé def ci say millions yu baree bari. Mhm. macha allah préparé ko des années nit ñi ñu toogoon ci benn diir boo xam ne bi toog nañ lu yàgg daje amul. Mhm. bëree amul suñu accès war nañu wane lu magnifique loo xam ne. Sénégal yi day dañ ci am benn lu ñu. lu new manque bi waa manque bi dinañ ko mën rattraper manqué. te vraiment borom làmb ji lu ko war yépp def na ko. Mm. macha allah làmb ji tam mel ni mu war a mel. lu ci war ci mooy yëpp ñu def ko. war nañu sagal doomu aadama yi bëre bëre bu am maanaa ba jël la am. Mm. mu nekk loo xam ne li lu am solo la. Mm-hmm. waaye nag làmb nag mais làmb nag ak loolu tam ñoo ànd. waaw ñoo ñoo ànd ñoo ànd. ndokkee ji da Gaston Mbengue mhm. wax dëgg yàlla nit ku yàlla baax waaw nit yàlla baax toj na yàlla la bu dee tojul faram fàcce mi démb dama koo bëgg ay ñëw na ci faram fàcce bi toj na télé bi démb la day hmm. day di la kenn du moom ay man sama jëkkër jooju dëgg la ay sa sama cousin la moo tax sama jëkkër la boo xam ne at mu jot mu war maa andil waru gar du ko te du ñëw xam nga lii lamb jaa ngi nii te xam nga te xam nga te xam nga Gris Bordeaux keroog bi moo daje ak Eumeu Sène àddina xaw na tukki mhm. ruq ruq bu ne ruq bu ne def na fa kurpeñ. <laughs> ruq bu ne def na fa kurpeñ kay non c'est que làmb moom bu guddee pare après nga day am goût de loo xam ne dalay manqué daal waa calcul yi bañ a daanu les calculs c'est a daanu li mu ne dañ ko téye ne ko bëree nangam. waaw tamit tamit. entourage boo leen déglu lu la ca fekk dañ naan la yaa teg sa bopp. loolu la de. c'est que li ngay sóoraale mooy bëri. tàkkusaan gu metti lay doon ci yow ak ñuy bëri ñëpp yàlla baax na en tout cas sunu sport la dañuy xool ñu koy jéem a gën a ah, évoluer ah. rek te namoon nañ ko bu baax a baax a euh, baax ñun làmb dañ ko bëgg merci beaucoup Soro ci actualité bi nga indi tey ci kanam ñu ñëwaat ak yow point covid xool euh, évolution bi en espérant que wàcc na joxuma la big bi Soro tey nag ñoo ko bokk yi ma jot seen nii Euh, kii bi génnagul mais euh, communiqué bi laa gisagul mais cas yi moom dafa yokku tey par rapport ak 3 jours yu mujj yi. Eh, tey par exemple 73 cas moo am mais il faut dire que test yi aussi dafa yokk par rapport ak jours yu mujj yi. 29 mm. yi mooy cas contact 82 yi mooy cas communautaire. 23 euh, personnes ñoo nekk réanimation tey 3 personnes ñoo ñàkk seen bakkan donc vacciné gum nañ lu toll ci 33 cent 910 personnes donc euh, suñu tendance baissière bi ba tey mu ngi ci mais bu gënee wàcc ñu jël donc euh, nañu gën a góorlu rek te gën a farlu ci ci ci ci kii yi ci digle yi geste barrière yi buñ ko fàtte raxasu gel takk masque et puis distanciation sociale lañ leen di fàttali tout le temps et surtout allez vous faire vacciner ñun jël nañu jot nañoo jël suñu première dose euh, deuxième bi moo ci des euh, noonu rek lañ amagum comme solution pour xeex li nga xamante ne moom moo di mbas mi fi nekk euh, dañuy jàll ci religion buñ jugee ci actualité religion moo njëkk a reconnaître mbas oustaz waaye tey Euh, li nga nar waxtaanee mooy forum islamique sur la paix loo xam ne yaakaar naa war nañ ko gën a développer fépp ci àdduna bi ba nit yi gën a comprendre ne islam égal paix ndax euh, dëkk yi def amal amalgame bi ba léegi di jël islam di ko comparer ak terrorisme bëri na te yaakaar naa ci forum yu mel nii rek la ñu gën a mën a xamalante ak islam ak ñeneen ñi nga xam ne miinuñu ko dunduñu ko xamuñu lan la. waaw xam nga bijou jërëjëf euh, l'islam moom dafa wuyu turam ndax mu ngi jóge comme ni ñu koy waxee saa su nekk baat bu Mm-hmm. asalaam nag boo ko waxee mooy la mooy jàmm l'islam léppam jàmm la jàmm lay woote si jàmm lay dox te lu dul jàmm l'islam bëggu ko xamu ko doxu si mm-hmm. bañ na ko sax ba lislaam dañ ne la bu doomu aadama ñëwee bëgg a indi li nga xamante ni moom moo di ñàkk jàmm mm-hmm. yow fexeel ba indi ko li nga xamante ni moom moo di jàmm yàlla nee ne si jàmm jooju bu nitee nga koy indil moom ki indi woon ñàkk jàmm bu nitee tuuti dina ñëw fekke si la si li nga xamante ni moom moo di jàmm parce que jàmm kenn mënul am lu ko gën a neex jàmm kenn mënul am lu ko gën a neex moo xam si ni ngay dundee la moo xam si sa yaram la moo xam sa kër ga nga xamante ni fa nga dëkk la Hadj Malick bu fekkente ne euh, élément bi pare na ñu xool ko rek bu ñu paree dellu sawaat incha allah joxe li nga xamante ni moom moo di faram-fàcce bi. doon waxtaanee mbirum Covid bi ak jeexital li nga xam ne def na ko ci àddina rawatina suñu réew mi nga xam ne moom lañu gën a xam ci wàllu diine doxinu diine ji ak ci wàllu social ak ci wàllu économie ak ci wàllu éducation. ñoo ay borom xam-xam ñu ràññiku euh, traité thème yi lu ma juróom-ñetti boroom xam-xam yu xam ci réew mi xam nañ ci njàngale ak gëstu ak tasaare xam-xam bu leer loolu nag bi ñu xam mbir bu nekk bu ñu ko tëjee dana am ay dénkaane dénkaane yooyu nag bokk na ci maanaam rafetlu nangu gi nga xam ni ñu doon indi bëgg indi fitna ci réew mi nangu nañ ko ci ñaanu xalifa bi ak ñaanu kilifa diine yi muy mbir moo xam ni dal na xel ndax loolu aussi day wane ni Sénégal réew mu nangu kilifteef la sant bu baax Cheikh mu Mountakha ci taxawaayam bu rafet ci feebar bii ba mu tàmbalee muy kit ay mi yu bëri joxe ba pare nangoo takk masque ci mag moo xam ne ëppal na juróom-ñetti fukki at bi bi nee ba ci digg bi am malade yu bëri yu nekk tubaa muy togg di leen jox bés bu ne bi nee ba mu catee mu yëkkatewaat alal joxe waat bi mu demee ba ba ba xeefe bi amit am ñu ci loru wala ñu ci faatu mu yëkkati xam sa juróom fukki million jox leen nga ndàmpaay waaye masawu leen waaye euh, dénkaat nit ñi ñu moytu fitna ndax fitna baaxul waaye forum bi ñu ngi métti du liy xew Palestine muy réewum jullit réewum lislaam moo xam ni jot nañu am seen indépendance nga xam ni tey jii defe naa amul benn réew ci àddina bi boo xam ne amul indépendance te réer boo ma xam ne réewum jullit la donc noot gi ñeen di noot fu jullit nekk di waxtaan lu mu ruqi ruqi lu mu sori sori war naa yëkkati kàddoom addu solidarité ak taxawaayam ak bëggam ci Palestine ak bëggam ndax la fa nekk ndax moom ba xutsu ba fa nekk rek jar na loolu wax na ma nag ñu ñu ay ñu ay jullit forum bi aussi ñu ngi saluer ubbi ubbiku gi nga xam ni son excellence président de la République def na ko ci nangoo waxtaan ndax xam nga ni kilifa diine yi keroog lu jiitu ñuy daje ci institut islamique dañoo dem waxtaan président de la République kon kooku wane na ni kuy déglu la te suñu borom subhanahu wa taala moo ne wa amruhum shura mbir mu mën na noonu muy jàmm muy ay suñ ko waxtaanee rek buntu am forum bi aussi ñu ngi sant euh, son excellence président de la ci taxaw gi muy taxaw at mu jot wax naa ko démb at mu jot mu taxaw dugal loxoom ci lii ndax lii bi ñu koy def ca tàmbali ab ONG moo ñu ci daan dimbali ONG boobu dem ba tële ñun aussi ñun bëgguñoo taxaw ndax liggéey bi saamata taxaw waaye son excellence at mu jot mu yëkkati alal def ci te xam ngeen fi def am na ñoo xam ne fi bi am na ci ñoo xam ne démb ak tey fi la ñuy xéwloo ñu sant Niang ñu sant Diagne waaye tey jii participants yëpp fi la ñuy xéwloo donc loolu alal a koy def te participant bu nekk dañoo jox paas bu la yóbbu ba fa ba fa nga jógee woon conférencier naka noonu loolu nag bu ñu ko mënee réussir dañoo am ay partenaires yu dëgër partenaire bi ci ëpp bi ci jiitu nag mooy son excellence président ñu koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla mu gën koo dëgëral gën koo kattanal ci gàttal daal loolu mooy recommandation yi ñu fi def di ñaan yàlla mu may ñu. voilà mu nekkoon waxtaan bu am solo ci islam ak jaamu islam religion de paix. ko xamul ñun ñu xamal la ko. waaw euh, mu nekk loo xamante ni euh, sëñ Ahmed Saloum Dieng moomu fa moom moo koy taxawal at mu jot nekk taxawaay ba nga xamante ni bu am solo la moom itam yamul si loolu rek ndax moo nekk vice président commission communication bu grand màggal de Touba loolu itam nekk beneen ndombal tànk wala beneen cër ba nga xamante ni borom subhaanahu wa taala euh, jox na ko ko forum bi nag li koy andi chaque année mu koy waxtaane mooy euh, forum islamique sur la jàmm la waxtaane mais at mu jot dañuy xool comme ni ñu ko waxee sànq tolluwaayu jamono ak nañ dañ koy dëppalee ak li nga xamante ni moom moo di mm-hmm. la ci Sénégal ak ci senegal yi moo xam si wàllu diine bi la parce que dem nañ fi ba tëjoon fi li nga xamante ni mhm. moom moo di ay jàkk ak ay mhm. juma mhm. waxtaane nañ fi léegi conférence yi doon am ak yi doon ak yi ah, te amatul woon euh, màggal yu bari bu dul grand màggal màggalu xalif yi fi jaar ak njabootu Cheikhul Khadim radiallahu anhu yu bari ña mu daan amee amee wu ni dañ ko tënk ndax li nga xamante ni moom moo di mbas mi kon yooyu yëpp dafa nekk ay impact ya nga xamante ni daf koy def socialement aussi El Hadj Mamadou Mbaye Garmi mu ngi koy wax léegi yu bëri daan na xew xewatul woon li ko waraloon moom mooy li nga xamante ni moom moo di mbas mi si kaw loolu nag bi ñu defee jàngat bi ñu nekkoon nañu fexe ba lii tere nit ñi lañ daan def si diine ak lañ daan dundeek yooyu lépp lislaam rafetlu ko demeetul noonu nañu fexe ba loolu dellu sewaat mooy naka la ñuy waxtaane ba li ñuy doon wax léegi muy mbas mi yàlla suñu borom subhanahu wa taala jëleen ñu ko fi waaye itam ak li nga xamante moom moo di suñu sabablu mhm. bu laajee ñaan ñu ñaan bu laajee génne suñuy poste dégg nga li mu wax léegi sëñ Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér wéral ko ak mbooleem xalif yëpp taxawaay bi nga xamante ni am nañ ko si waaye itam surtout responsabilité bi nga xamante ni moom laa doon moom laa doon wax sànq boobu ba léegi yooyu yëpp nekk la nga xamante ni lu am solo la parce que xalif yëpp yebal nañ ko seen ay njaboot loolu mooy wane na ñoom itam jàmm ji ñor na leen dégg nga itam junj na barke démboo Njaay bi réew mi xawee yëngu taxawaay bi nga xamante ni kilifa diine yi am nañ ko si nga xam ne keroog bi ñu toogee Serigne Mansour Sy Dabakh ñu koy ziar kaddu yu am solo ya nga xamante ni yëkkati na ko ku ko dégg rek sa yaram daw nga xam ne ñii askan wi rek la ñuy moo tax oustaz ñuy wax Sénégal mun naa saxaar rek waaye du tàkk ndaxte dafa am kilifa yoo xamante ne ñi ngi fi nekk taxawaay fi taxawaay boo xam ne euh, ñoom du ñu gis lu ñaaw di ko bàyyi muy dem ba pare nit yi déggal leen tamit suñ leen nee bàyyi leen ak lu ñu fu ñu mun munti toll ak lu ñu mun ti xalaat ak lu ñu mermer ñëppay bàyyee ndox waaw mooy que ne spirituel mënul dem bàyyi temporel. Mhm. temporel mënul dem bàyyi spirituel. yaa ngi philosophé nag. ñaar la ya nga xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala moo leen indi si kaw suuf faw ñuy lëkkaloo. Mhm. nee naa la yàlla yónni na ab yonant mu nekk roi nekk prophète yonte yàlla Souleymane alayhi salaam il était roi et profet en même temps te nguur gi mu amoon dafa ñaanoon yàlla naka dama lay ñaan nga may ma nguur goo xamante ni kenn mosu ko am te kenn dootu ko am ba ilaa yawmi diin suñu borom defal ko ko. moo tax yonte yàlla suleymaan alayhi salaam jinne yi dañ ko bàyyi woon xel doomu adama yi dañ ko bàyyi woon xel jamonoom lépp lu yàlla bind rek bàyyi woon nga ko xel ba si njanaaw yi ndax li njanaaw yi doon wax sax daf ko doon dégg moom ndax suñu borom subhaanahu wa taala si moom moo ko doon moom moo ko defaloon li xorondom yi doon wax daf ko doon dégg moom yonte yàlla suleymaan alayhi salaam ndax am na bés mu ànd ak soldat yi di dem jékki-jékki rek ne stop gars yi taxaw ndax benn xorondom moo doon ñoo doon jéggi di seen convoi bi di ñëw mu naan gaaw leen ñu déplacé wu. jéggi balaa Souleymane dañu fekk ak ay soldats am ñu boobu te duñ ko yëg. lu Souleymane ree ne gars yi taxaw leen ñu ne ko lu xew bu leen ay xorondam ñi nga si kanam ka leen jiite nag neen leen gaaw leen jéggi balaa Souleymane a yegg si boobu ñu te duñ ko yëg kon loolu yàgg na si àdduna maanaam spiritualité ak temporel kon loolu nag dafa nekk la nga xamante ni ñaar ñi ko séq saa su nekk dañ war di diisoo dañu war di waxtaan waaye joxente cër surtout joxante cër surtout président de la république nguuru àdduna yàllaa koy joxe comme ni muy defee doomu aadama sëriñ comme ni muy defee doomu aadama oustaz comme ni muy defee doomu aadama imam yàlla moo naan kii président de la république lay doon moom war na xam li nga xamante moom moo di wareefam mu nekk si ki nga xamante ni moom mooy kilifa diine itam war na xam lan mooy waree fam mu nekk fi dama dama dama dama gis benn situation démb bu ama am solo benn waay wax ko mu ne bu fekkente ne da ngeen toog ne maanaam lépp la nga xamante ni dafa jëm si diine intéressé wu leen lu jëm si mbiru àdduna intéressé intéressé wu leen yéen ñooñu hmm. diine nee na bu boobaa yàlla dana fi teg ñoo xamante ni ay nitu àdduna lañ si waxin ñu jiite leen te daray diine du leen intéressé hmm. yéen ñi yor diine bu leen nii askan wi di doxee politiquement waxuma politique politicienne politique bu mm. normal ni muy doxee bu leen intéressé mm. lu dul sama sajaada sama kurus sama kaamil rek moo ma ñor nee yàlla dana fi indi ñoo xamante ñooñu loolu ñoru leen àddina rek a leen ñor te danay diina ñoru leen mooy que ne ñaar yi complémentarité la war a doon. kenn mënul dem bàyyi sa morom. salaay mm. salaam bi ko yàlla yónnee mu nekk Madinatul Munawwara matière yoroon na pouvoir législatif. Mhm. Ahmed Saloum dem ju ñu na ko léegi xaw ma élément bi ñu jàll. maanaam dañ doon waxtaan seen biir. dafa am bés yàlla na ko kaay ma wax na nag gis nga gaay ñii nii si affaire bi lañ boole leen si. wa shawirhum fil amri yëf yi si lañ del consulté wu ak ñoom di waxtaan ak ñoom beneen bi feneen mu ne ko wa bay na baynahum si suratu shura concertation la tudd saar boobu noonu. Mhm. kon lislaam bàyyiwul dara. dafa am bés yoon euh, Seydina Omar radiyallahu anhu yoon sallallahu alayhi wasallam wax benn wax ñu doon waaje takk xare bu mu waxee ba yegg yegg ak teg stratégie mu ne ko lii yàlla moo la ko sant wala sa xalaatu bopp la. Mm-hmm. mu toll nii yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam ne ko ah lii day sama xalaatu bopp la mu nekk nañ ko teg ci table bi. Mm-hmm. waxtaanee ko waxtaanee ko waxtaanee ko. c'est important sallallahu alayhi wasallam laa la wax ki gën ñëpp ki tax yàlla bind ñëpp gën kudul moom kon loolu lañ say jàngee. mooy ak koo mën a doon loo mën a jiite loo mën a yoon day jaadu légal ak yëf yi da koy teg ci taabal bi ña ko war a seq nag seq ko seq ko ña ko war a seq ndax am na ñoo xam ne al amin radiallahu anhu nee na bu ñu naree wax nañu jël li ñu am yëpp jox leen ko ñu leen noppi leen ndax bu ñu waxee rek toj penc toj dëkk bi waaye am na ñoo xam ne bu ñu naree noppi ñu jël la ñu am yëpp bul ko déggee alal maanaam si xalaat bu rafet si si si si naxante ak ñoom si waxin wala si euh, euh, waxtaan ak ñoom ba ñu nangu ñëw toog. ndax bu ñu waxee rek lépp defaru penc mi rek kon loolu moom moo fi nekk spirituel ak temporel dañu war di mbooloo war di waxtaan te xam ne benn bu si fay rek bu si fayir. beneen si des bu ko fi bàyyi. ndax lu yóbbu tëgg naka tëgg ba du fa. du bàyyi upp ya. tëgg du bàyyi. lu yóbbu tëgg ba du bàyyi upp ya maanaam. maanaam. comme spirituel spirituel ça donne quoi. spirituel. manul fayir sax si waxin mais bés bu fayiroon du fayir ndax yàlla moo ko téyel boppam. Mm. innaa nazzalnaa dikra innaa lahu la xaafiduun. ah bagage yi mooy upp yi. waaw lu mu koy defee. waaw bu fekkee tëgg ba newu fa mm-hmm. bagage yi def. spirituel du du fayir mais waxin la ngir ñu mën ñoo dégg. Mm-hmm. tey jii bu demee woon noonu itam temporel bi du fi des parce que temporel bii fi nekk li ca fi bàyyi jamono yi li ñu génn xam nañ ko lu ko fi bàyyi. spirituel bi moo ko fi bàyyi du dëgg. temporel bi aussi bu fayiree spirituel bi bu boobaa am na la nga xamante ni dootu ko man mhm. parce que lépp nekkul si loxo spiritualité mhm. yàlla am na ñeneen lu mu dénk leneen parce que yàlla moo jël ay mbiram décentralisé ko noonu mhm. ngir ñuy soxla wante xam lan moo tax yàlla wàccee ñu si kaw suuf mhm. mooy ñuy mottalinte parce que kenn namatul la mhm. preuve kii élément am sa élément élément coro sama élément moom la ñuy dajale def ko émission ci booy togg sa kër da ngay dem nduggi selon la nga bëgg a togg jënd lii jënd lii ñëw do sëccin waaye boo ko yekkee ku ko mos xam ne fii daraa ngi fi kon la mas di doxee benn mënul dem bàyyi sa morom donc loolu nag dafa daal xam nga daal cin li mm-hmm. li daje ci biir cin li yëpp mm-hmm. muy mooy àddina jërëjëf ku ci ne amu nga contribution boo xam ne bii yow la war soo ko ca defee rek suñu ñu yekkee mu mu mel ni mu war a mel mm-hmm. waaye nag boo jekkee ba mu yàgg nga doyoo dal xorom ne ko bul agsi bés boo yekkee tiim ko nga xam ne xorom. na waaye am na njëriñ. am na njëriñ donc ku ci nekk nañu jël rek te boo ko si defee monsieur ko gis. waaye boo bu ci manqué nga xam ne. ñëpp sentir ko ku ci nekk àdduna bi am nga loo war a apporter. Mhm. mooy loolu donc loolu moom mooy objectif bi ñu xam lan mooy l'islam gis nga suñu diine jii dañ ko téye te fonk ko. Mhm. yàlla dafa waxoon si alquran fa laay jeexale wa innahu la zikrun laka. moom xanaa moom fi mu toll dafa yaakaar ne demi conférence. wasoo fa tuuti amul day jël di tasaare. waaw wareef wareef koo. incha allah problème wala dañ lay jëw nii mën a coro sax dañ lay jëw nii. lii en direct nii. non mais yow waxal rek ñun ñu ngi lay jëw nii. incha allah yàlla nañu ko ko neex lay wax. ñu waxee ba pare léegi xam naa ne waaye bisu Ndiaye. bi expliqué émission bi pendant une heure ñu ngi conférence. bëgg indi ñaari sujet loolu rafetul na bàyyi ba suba waaw moo gën waxtaan nañ suñu biir léegi beneen sujet bi donc ko. incha allah taala ndax su lay gën a neex sax ndax bésu àjjuma lay doon. waaw kay xam naa ne mooy àjjuma ji ju mujj laata ñuy dugg si. voilà justement incha allah ñu jox ko. gaa yi ñu laa ko ci <laughs> uh-huh. bi di. Ahmed Saloum Ahmed Saloum yëpp yàlla baaxal dëgg lépp loo xam ne lii tarbiyu na mag ñi. Uh-huh. dëgg la joxoon cër loolu suñ munta suñ munta daa. ba sax dañu naan doomu xolam la loolu moo lay wan ne baax rek moo am solo mag ñi nag lii rek lañ bëggoon ci xale yi mhm. pour bu ñu fi jógee ñu continuer seen ñu am taxawaay bu rafet bi ñu taxaw mhm. te ma Saloum Dieng tamit boobu cër def yor na ko ci dogguma la màggal gi ñu passé dafa weesu comme yàlla dafa dogal dinaa la wax mbasaa mbasaa bu bàyyi woote léegi nee na noonu. bu mu paree sëñ Mountakha woolu dafa jàppoon ne sax dafa am lu mu defoon nag a sant jërëjëf oustaz. kilifa daal. jërëjëf c'est important boo ko amul da ngay a ba ma. jërëjëf oustaz merci beaucoup. di wax rek voilà religion bi prévoir na yëpp buñ ko toppee rek carrément

chaque jeudi mu indi ñu benn mag boo xamante ne oh. magu kilifa la mag bu jararoy la euh, tey ñu nar a waxtaanee Cheikh Béthio Thioune nga xamante ne euh, xëy na jóge na fi de mais œuvre mi ngi fi ba léegi ndax man euh, fi ma koy jàppee rek mooy nit yu bëri yi nga xamante ne moom daf leen defar bàyyi leen fi ñuy defar yeneen nit tonton Garmi man daal li ma la wax mën a wax Bijou Ndiaye ci ci ci mbiru sëñ Béthio fi jëf te dem nit mën a fi def ay siècle ca kanamam te doo jëf li jëf mm. kon bu nu sori nan tàbbi ci élément bi na ah lang. lang comme ni ko xale yi di. ni ko xale yi defee. waaw moom laa mën expliquer waaye la ma dawloo la ma xëcc. la ma yóbbu ci ba toppati ba. loola ginnaaw gi laay door a xam la ma ko teg sëriñ bi daal di coché bi taxawal mu taxaw mu ni ma gees ni ma ndongoli kaay nuyoo waaye xam nga ni waroon maa dem ca kanamam sukk suuf tàllal ko samay loxo ca kaw waaye booba xaw ma ma ko sama loxo ca ginnaaw ma wuññiku jàkkaarloo man jox ma loxo. waaye ku xam digganteem ak xale di nga xam ne du aayal li nga def. déedéet aayalu ko. du ko aayal. déedéet. mun mhm. ma ndongo li noo tudd. ma ne ko man Béthio laa tudd. mun ma noo sant. ma ne ko coon. mun ma foo dëkk. ma ne ko dëkk bee génne léegi. ndax sunu tool ak dëkk bi sorewul bu génnee ci dëkk bi romb nu ma ne ko ci dëkk bii laa dëkk ñu di ko attaset xam ngeen sa baay Isma Juufa ma ne ko waaw xam naa ko ma bëggoon a ak sa mag jee na ngeen ma fekk nu liggéey ba ngoon nu wàcc sangu sol suñu yére dem kay kër baay Isma Juuf fekk fa Sëriñ Saaliw fekk mag ñaa ngi ko wër danoo séen rek daal di yëkkati loxoom ñu nañ leen may ñu jàll mag ñi naa di séparé wu ñu jaar ca ba si ci moom xamuñu booba sujjóot dañoo ñëw rek nit ni rot rot laalal taxaw tàllal ko loxo nuyoo ba noppi mu toog na du ci suuf ñu toog fekk maa ngi ko fekk muy waajal attaaya baraada ba jëkk ñor ba mu xellee cib kaas tolluwaatiwul tollantiwul beneen kaas sama benn kaas ba la xelli mu daal di yëkkati kaas ba mu jëkk a xelli ba mu ko yëkkatee maa ngi ko ne tàllal say loxo mu naa nii loxoom te xal yëkkati kaas ba teg sama loxo ñaareelu kaas ba mu yëkkati ko teg sama loxol ba door na nga geesu mag ñi te booba ci juróom-ñetti at la war a toll ñu daal di sukk moo nu waxal ci làmmiñu boppam jébbal naa la sama bopp nee leen jébbal naa la sama bopp noonu sëriñ Saaliw jébbal nan la sunu bopp àddina ak alaaxira mu ñaanal lu tëfle du nangu sunu njëbbal ga yi la demee waaye bu ñu dégloo Cheikh Béthio raconté ko muy rencontre am ak euh, Serigne Saliou euh, dafay daw yaram tonton Garmi ndax euh, boo dee xool cantaay yi woy nañu ko. Mm. mais ak détails yii nii doo ko xam booy déglu woy bi rek foog nga déglu Cheikh bi mu wax ko nga soog a xam lan moo xewoon Kër Baye Ibou Diouf. Bijou Ndiaye góor yàlla pire dem na bu manqué benn guddi kii boo ne ko jàkk nga xam ne tarbu yu rek moom solo. waaye dafa am boole yoo xam ne yii boole yàlla la fale leen yàlla di boole kenn xamul daje bii te sëriñ bi faram-fàcce ko nii mu ko faram-fàccee lii moo lay wane lu waay di gis ak noo ko mën a gisee su ca maandu waree maandu ci rekk moo gën. Mm-hmm. waaye kii de ku ne ku ne ko jàkk xam ne jubóo na ak sëñ Saliou de. Mm-hmm. li ma ne mën a nit dina def deux yeneen deux siècles te li sëriñ te li sëriñ bee ko def kenn du ko def. waaye daal dëgg-dëgg ma am ci nag mbégte ndax montage yi sama doom moo ko te maa ngi koy doon gis. xaw ma lu mu def ci clé bi. xëy naa rek jël ko def sama poos ñëw. da ko dal sëñ beeko la noo defal hommage. Mhm. fàttaliku moom la defar ko sant gërëm naa ko. marche parce que macha allah. li mm. ñu def dafa dafa dafa mm. dafa sedd xol. Mm. parce que fi mu daggee waxtaan dafa am solo fi mu daggee ak fi mu dugg. Mm-hmm. su ma toogoon ci kanamu caméra bi mu di ko téléchargé di ko ci def itam dama naan ko lii la. Mm-hmm. mu def ko te gisuma ko te di nelaw. ma yow def ko sama bopp. ñëw indi sa xol sedd sama xol sedd la buy. te ñuy waxtaanee 17 avril mu dagg 17 avril. tonton tonton Garmi lii moo waral bés bi 17 avril bi nga xamante ne moom la ñuy waajal lii rek exactement. moo waral exactement ça. 1946 seen daje ba. Mhm. ca Tasset la woon ca Tasset. mu seen saret bi jox ko loxo sëñ Saliou ca sell ga jàkkaar jàkkaarloo moom doo ko jox loxo bi kon di sëñ Saliou ni soo su ma jekki te gisuma leen damay wàññi ko dëgg la. Mhm. wàññi ko bi def defoon na ko foofa. bi ko sëñ bi ko sëñ bee joxee loxo te wan ko ginnaaw dafa wàññi ko ba jàkkaarloo moom doo ko jox loo ne su ma su ma àndeeg yéen dox ba yàgg gisuma leen damay daal di taxaw wàññu ko su ma leen xaaree gisuma leen ma wàññu ko ñëw fekk si leen mm-hmm. et tonton Gane digganteem ak ñun li ñoom war nañ koo xam waaye mm-hmm. nañ xam sëñ Bamba nag li ñoom bi lay war nañ koo xam mm-hmm. oustaz xam nañ ko sax et tanta bi euh, foog mu ñëw di nga wax <laughs> di nga wax grand frère <laughs> yëngeen danaan football ah? ay waay après ñu ñëw ci. am nga lii mooy fii germe yi. jeex a daaneel rek foofu laay yëkkatee. muy la nga xamante ne lu am solo la. te moo di li nga xam ne moom la Serigne Saliou radiyallahu taala anhu def ci kilifa gu ñu toll. ak wala yi wu ñu toll ak maqaama bi mu am. loolu dafa nekk jàngale ba nga xamante ni bu rëy la. muy modeste. waaye xoolal li nga xamante ni Cheikh Béthio mi nga xamante ni moom la ñuy euh, waxtaanee li mu am. dara mayu ko ko lu dul nangu kilifteef nangu kilifteef nangu doon taalibe waaye surtout nangoo sonn si doomu aadama yi sëñ Fallou radiallahu taala anhu dafa waxoon ne jaamu yàlla si jaami yàlla ànd ak ay nit ànd ak ay taalibe ànd ak ñoo xamante ni sa njaboot lañu ku si nekk saa yoo xëyee yaa ngay xënti lu mu mën a am mu lew ta dagan hmm. mu mën ko for yóbbu këram yaa ngi xint lu mu mën a jàpp lu dëgër yaa ngi xint noo ko wutale li nga xamante moom moo di am xëy loolu dafa nekk la nga xamante ni lu am solo la waaye bokk na si li nga xamante ni moom moo ma gën a marqué si moom muy nangu joxe ñam nangu joxe ñam bari waay na loo daan dégg ñoo xam ne lu ñu lay wax dañ naa la tey la sam damay dem sa cant ka te mhm. la leen fa yóbbu la fa ëpp mooy fexe lu ñu def seen biir mhm. te wóor na leen bu ñu demee dañ ko fay fekk mhm. te dañ ko fay fekk xéwlu si ba mu des ñu bàyyi ko fa dem seen yoon loolu la muy symboliser mooy xamoon na kan lan mooy doomu aadama ak ban yëg-yëg lañ war a am si li nga xamante ni moom moo di doomu aadama. nit ki nag bu fekkee ne da nga ànd ak moom te jëriñu la si lenn lenn lenn lenn lenn. loolu moo nekk fu ñukk rek te dem sa yoon. c'est aussi simple que ça. te beneen bi itam mooy li nga xamante ni moom mooy kii nga xam ne moom la àndaloon. di Cheikh Salih Mbacké radiyallahu taala anhu keneen la. ndax euh, sëñ Touba radiallahu anhu dafa bindoon ne li yan qaadatil ujur wal masaalih bi tayyi wal jazbi wa inni saalih si gàttal sëriñ Touba radiallahu anhu dafa ne man mii man maay saalih mhm. te loolu dafa nekk beneen jàngale ba nga xamante ni dafa xóot am lu am solo la nga xamante ni lu si nekk man mii maay saalihu si jikko man mii maay saalihu si taxawaay man mii maay saalihu si njiit bu ñu yaakaar naka la war a mel ak ban tànk la war di taxawee te sëñ Saliou radiallahu taala anhu gar mi wax na ko léegi bu ñu àndee di dem bu ma leen jiitoo danaa leen xaar bu ma gessee gisuma leen ma dëpp dem jëli leen loolu mooy que lan am na fa nga xamante ni fa laa leen di teg fa laa leen teg am na bàyyi xel ga nga xamante ni moom laa moom laa leen di bàyyi xel te loolu lu koy findee daara yi nga xamante ni samp na ko fi moom Cheikh Salih Mbacké radiallahu taala anhu demal xel kom dem nañ fa gis nañ naka la ak nan la waaye itam yemul rek si jàngal leen waaye jàngal leen itam li nga xamante ni noonu la ñuy def ba mën a daan seen doole. ba mën a dundee la nga xamante nii lu lu lu lu loolu lépp dafa nekk la nga xamante ni wax fa dëgg yàlla li gar mi di wax rek saa su nekk jarul sori. jarul sori boo xoolee si ki ñuy waxtaan rek taxawaay bi nga xamante ni moom la amee woon mu nekk ka nga xamante ni si waxin doo gis benn njabootam ba yërëm ko. c'est très important. Mhm. doo gis benn njaboot koo xamante ne la man ci Cheikh Béthio laa bokk ba nga yërëm ko. da nga leen di fonk da nga leen di naw parce que di gis évolution bi nga xamante ne. gis évolution bi nga xamante am nañ ko ci diggante yow bi nga leen di xam ak bi ñuy dugg ci euh, cantaay yi coro xam naa duma bàyyi may wax loo xamante ne amul. ndax en tout cas daal bisu ma ñaar la nga dem. ñaar yi daal nañ ko si jàpp ñaar yi nañ ko si jàpp mooy nangu kilifteef. <laughs> waaye itam ak nangoo sonn si li nga xamante moom ndokkeel si bu baax Serigne bi Cheikh Saliou Serigne Saliou ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak suñu xaritu bopp Mor Isar moom suñu la eh, ba si kanam ak kanam amiin gar euh, na suñu xol waaye mënuñu see ba génn te coro sandiwu ci ñaari baat du rafet <laughs> mënul ñàkk coro ah? ndax mënoon na jàll tamit te duma xam diggam bés bi agsi na moo ne Mamadou Mbaye Gari moom mi ngi koy waaj boobu ba léegi 17 avril bii de su ma sañoon danañu génne dëgg rek Cheikh Bey. dangaa woyof rek may yombalal moo tax àdduna koppalante la. Mhm. waaw dëgg la ay dañuy jàppalante. ku nekk am nga loo mën loo xamante ne mun nga ko apporter sa morom. te du la wàññi dara. le 17 bi moom bi mu ko dalee waaj sax moo yàgg avril daa dugg rek mun ne damaa am xew. <laughs> dëgg la sonnal na ñëpp fi nii. <laughs> mi ngi noonu en tout <laughs> en tout cas li ci am li ci am solo mooy euh, njàngale mi parce que xam nga daf ci am ñoo xamante ne nit yi bu ñu leen di séen dañuy bokk ci éternel incompris yi mm-hmm. euh, ñun cantaakoon xam nañ ni dañu mas a bokk ci ci ci ci cercle boobu noonu mm-hmm. mais ku fréquenté cher bi bëri woon na ay waajur yoo xamante ne au départ dañu doon réticent ci seen doom fréquenté cant gi am na ci ñu seen waajur yi génnee am na ñu seen mais dem nañu ba ci biir waajur yooyu ñooy ñëwaat sant cheikh bi di ko gërëm parce que am sa doom bu jigéen xëj na bu samedi jotee ay moromam di baali moom mu ne cant laay dem su wàccee école ay moromam di déglu musique moom mu ne dama préféré durus jàng ay xasaayit mokkal ko di ko jàng te doo ko liir bëriwul ci ay kër kuréel yoo xamante ne boo demee da ko fay fekk mm. te loolu moom moo ko def ci kenn ku nekk te mu doon loo xam ne tonton bi daf ko jiite ci njabootam moom tey ko seexalee am na doomam yu bëri daf leen jël jox leen Serigne Saliou ñuy jàng arxuraan Serigne Saliou mi daa di bi dafa jàng arxuraan ba wàcc bindaat téere joxaat ko Serigne Saliou addiya c'est pour dire moom taxawaay bi éducation amoon ci moom muy jàngum arxuraan muy jàngum école parce que moom intellectuel la woon doomam bi nga xamante ne tey moom mooy xalifam bu waxee nga xam ne intellectuel la et partage bu am ci biir cantaakon yi kiy jëf dërëm ak kiy jëf milliard la ñu yemale képp bu feebar nit dina fa feebar ñu jël la en charge di la faj te kenn du ko yëg nit dina am problème ñëpp jàpp ci te kenn du ko yëg donc c'est dafay am ay ay ay ay ay valeurs yu am solo yoo xamante ni boo duggee ci biir cantaakon yi moom nga fay fekk àndam ak Serigne Saliou wax ngeen ko tey moom la Serigne Saliou Thioune di perpétuer ci digganteem ak Serigne Cheikh. Mm. ni papam doon def di dem ci daara ya di toggal ndongo yi di yóbbu seen togg noonu lay def chaque dimanche mu ànd ak njabootam ànd ak taalibe yi dem toggal ndongo yi. Mm. jox leen ñu lekk jox leen ñu naan mu saafante ak Serigne Cheikh Saliou ñibbisi. donc c'est des choses comme ça yoo xamante ne moo tax héritage am solo. Mm. booy bàyyi nga bàyyee sa yëf yoo xam koo xamante ne. daf ciy baax. Euh, coro dinaa la ci yokk rek ñaari baat moom rek la bàyyi ba xool na ko eh, Saliou soo ma doon ku ma doon. ku may doon. moo Saliou moom doon may doon waay xoola boobu baax doonoo gën a tay feeñ mu teg ko nag tamit ci yoon li bàyyi bi defoon yépp mu di ko def ba pare nag ko nag ci ginnaaw Cheikh Saliou. Serigne euh, euh, Serigne. Serigne Cheikh Serigne Cheikh mu Serigne Saliou. loolu dafa nekk loo xam ne li lu rëy la ñu daal ci rek nag daal ko ndeyam ju baax ji ndax man ndeyam sama xarit woon lool. bëgg ma fonk ma maa ngi moom nu nu ñuy si xay teraanga ma ko toog kooku tam maa jaal bu baax a baax ñàkk nañ daal ku baax koo xam ne kii daal. Mm-hmm. tonton Gaby foog le 17 avril. le 17 day dem ñun ñëppay àndandoo dem. distanciation sociale bi foog ñu invité ko. waa incha allah ak incha allah le 17 avril. Euh, cantaakun ñëpp a koy waaj ñu naaj cee ànd ak ñoom ci euh, bës bu màgg boobu euh, dañuy continuer li nga xam ne moom lañ leen di programmeel ci biir leen bi fàttaliku lay doon toujours en quelque sorte ak Exay Dex nar a indi clip boo. xamante ne léegi foofu naa tuuti. waaw ak Exay Dex mi il faut ñu takkal ko jabar. waaw na solo. non sérieux am na solo moom publiquement laa koy wax. <laughs> non sérieux parce que xam nga mbay de plateau ba léegi. dafa toog rek mbay teg la nii lay def day da di seetaan yàgg yàgg oustaz Assane xaw ma lu tax. moom jeudi noonu lay def. marié par force la yokkul wax yow. ya mun nga takk. bu leen tourné affaire léegi tonton Gal mi dañ koy laaj ndax mi ngi labatam déet ndax. waaye ñoo jékki-jékki may ko kenn rek noonu. mariage forcé lay doon koy la bat xanaa ngeen ñaanal ma la bat dina ñaanal ñaanal leen ma rek. waaye léegi lancé nañu suñu candidat la bat bi <laughs> waaw publiquement. lancé nañu suñu candidat bi publiquement. Euh, dépôt des dossiers mag bi je ne ko géré. na gars yi ñëw ci Facebook bi nañu ñëw ku bëgg rek waaw ku bëgg dinañ ko dépouillé waaw ngeen seetal ma kon comme xam nañ say goût yaa ngi comprendre ñun limante nañ ñun dinañ la mun a dépouiller buñ paree léegi ñu jàllale nga def entretien dafa tey tàbbi lu mu ci mën a doon xale bu métissé du ko yàq. waaw bu dëkkee Cap Vert it du ko yàq. bu mu élancé. Ah. bu dikk doomoo dina baax. Ah, waaw bu ànd ak daaguwaale du ko yàq. bu ànd ak daaguwaale du ko yàq. pourtant ñi nga rafetal boobu ba léegi. <laughs> walaay walaay topp bi laay walaay. yaa ngi toog ci un euh, bel nga bëgg fi doon rek doon éternel célibataire. yàlla baax na te damay ah. jot ay message rek ci yow. waaw ñun dañuy jot ay message rek lu jot yomb. garmi li mu wax mais dañuy jéem a xool sax x mais nangu woo xool. buñu nee ni nga naan damay nelaw. Souleymane Faye. Souleymane Souleymane Faye nee na walaay wax na dëgg nee na bu ñu waxee ñu ne lu jot yomb waaw waaye nee na léeg-léeg mu jot jafe ah dëgg la de léeg-léeg nga jot si dara naan li li ma si daj man daal sama téléphone nga naan tat tat message yi ak table waaw léegi nag candidat yi daal mën naa teg naa ko sa loxo gan yi fi dañ vérifié daal dañ vérifié léegi mën ngeen vérifié waaye daal lu ci mënti am rek mooy daal <laughs> gar daal tey wax na yàlla bari na sutura. <laughs> jeudi moom day toog rek teg laay tànkam. da leen di seetaan <laughs> jeudi jeudi man yàlla dafa def. yàllaa koy def. dama leen sopp te mën dëgg. parfois bu la yàlla mayee ngay bokk ak jotaay ñoom da nga leen. soo leen di wax dama damay jàng di déglu ci yéen. lu baree baree bare. ci wàllu diine ci wàllu àdduna ci wàllu cosaan ak lépp. je je vous admire. donc damay daanu leer damay du ma ci bëgg a dugal dugal dara. du wax loolu moom seetlu naa ko. waaw damay damay bëgg seetaan rek déglu ngeen développé coore coore fii. c'est beau man de bu ma gisee tonton Garmi damay rakkaaju man <laughs> bu ma gisee tonton Garmi damay rakkaaju. man gis naa loolu. c'est c'est comme on dit c'est beau. yal na leen fi yàlla bàyyi. amiin yaa rabbi yàlla yàlla saxal la fa leen ci amiin amiin suñu àll bi yal bu ci seytaane mësal yal na mu ci am place ñu dénk suñu bopp jaame rek ñu nuy ñaan ñoom it bés bu nekk ndax ñu yàgg fi yàgg leen a bégal donc voilà <laughs> li gaan bi wax am na solo casting bi daal maag coro ñu ngi koy gérer ñun bu ñu dépuyee ba pare jox tonton gar mi mu xool xoolaat bu ñu paree soo ko jox ex mu jàllale entretien yi xam naa fii fii korite gi ak wala tabaski. waaw ci yoon ah ci yoon waaw ci yoon de. ñu takkal la war naa ko mën a mën a eh, donc waa Garmi comme gis nañu léegi ma teg yëf yi sa loxo. mu yóbbu. <laughs> yow daal mbay yëpp moom daal. dinañ ko gérer tàmbali ci mbir dinañ ko gérer dinañ ko gérer demal ci Pape Niang mais ñun dinañ ko gérer. ci xolam la ko tibbee ndax émission bi da ko arrêté. nee na ngeen baal ma nag. na takki da laa góorgóorlu ban sëñ Ba Garmi lii dootul ñaar. dama ci Pape Ndiaye rek yow. Euh, mais gàtt bi loo xam ci ku xolam yàqu. ñu fàttali ko loo xam ci ku xolam yàqu. mais am na ñoo xam dañ koy defar. waaw dama ne yow yow sa patron way na ko. dëgg la lim ndax diig ko. waaw wallaay dëgg la. mais loolu daf ko way. bu la nekkee kii mu xaw laa kii teg ko fa. waaw dëgg la wallaay wallaay dëgg la dooy xaar. dëgg la wallaay wallaay dëgg. waaye wax na ak yow. waay waay Madou waay yu mag moom. <laughs> voilà donc Bijou euh, je pense que ne way wi di ñëw sax. dana ko illustrer. sa rafetaay sa rafetaay. sa jeekaay sa jeekaay boo demee mi ngi labat nag. Euh, naa way bi daa am ku mu koy may sax. Pape euh, Pape Dia tey lu ñu andi. di waykat boo xamante ni moom it bokk na ci waykat yi gën a mag. ndax boo koy xool moom soul musique lañ ko gën a xam waaye dafa am benn particularité. Mhm. moom mooy day jouer instrument. et sa c'est spectaculaire. Mm. donc ñuy jëloon benn vidéo boo xamante ne dañ ko andi tey juste pour fàttaliku et puis pour rendre ko hommage parce que baax na tamit ñoom ci seen dundu ñu wax liñ fi jëf. pour ñaax xale yi comme ça ñu gën a góorgóorlu ba nga xam ni ñoom it musique ñu xam li leen di xaar xam na rek euh, ndono gi dañ nga ci war a yokk waaye waroo koo seetaan te waroo cee wàññi dara. Mm. donc nañu seetaan vidéo bi buñ ci jógee ñu faram fàcce ko. une très belle chanson très très belle style bi lan la excité. Euh, c'est de l'afro soul ah. soul ah. waaw afro soul moom booy xool euh, particularim soul la donc voilà afro soul la et vraiment c'est c'est c'est une très belle chanson donc moom ci boppam bi nga xam ni euh, Pape Niang particularité am wax naa ko sànq mooy instrument bi muy joué. mooy instrument bu complexe mooy batterie. Mhm. déjà bu la yàlla tege benn nattu. waa man nu muy def ba jouer batterie tam jaaxal na ma et c'est fort c'est fort parce que instrument yooyu noonu dafa am euh, euh, surtout timbal mhm. wala li ñuy wax caisse claire mhm. résonance bi am na fooy dóor de def tàng am na fooy dóor day def tung mhm. pas donc bu dóoree ci digg bi dafay am am euh, rim bi donc yooyu yëpp am di laal ci charlet yi et tout ça sans compter grosse caisse bi ci suuf. muy bu ci nekk di jouer indépendant li loxo bi di jouer ak li loxo bi di jouer bokkul li tànk bi di jouer ak li ñaari loxo yi di jouer du bokk li muy laal tamit ci tembaal yi wala charleston yi du bokk donc nga xamante ni kii yàlla da ko may donc muy don boo xam ni muy quatre ou cinq liggéey yu mag yu muy def di jouer mooy téye temps bi ndax bu fekkoon da doon jouer guitare du téye temps. Mhm. ndax bu boobaa dafay accompagner rek mais moom mooy téye temps parce que batterie mooy téye temps donc moom non seulement mooy téye temps bi musique bi yëpp ci kawam la nekk muy jouer ñëpp lëkk nekk ci kawam muy way boole ci donc c'est vraiment c'est c'est c'est c'est un travail boo xamante ne def euh, c'est énorme mm. jouer batterie rek nga boole ci di wax dafa métti mm. à plus forte raison ngay jouer batterie di way di moom da koy def Cheikh da koy def mm-hmm. Cheikh Lo day jouer batterie day jouer guitare day jouer piano ba pare day jouer percu donc mu nekk ay instruments mu nekk ay musiciens yoo xam ne ñoom dañu complet soo koy xool tey ay Stevie Wonder moom bokk na tamit ci artistes yi nga xamante ne moom euh, day jouer euh, piano. Mm-hmm. Euh, bokk na ak yëngatu bi ak yëngatu bi tout ça booy xool ñoom ñaar sax ñoo xaw bokk timbre ni ñu wooyee ay aussi. voilà booy xool tamit Ray Charles tamit. Mm-hmm. moom it noonu lool moom it gis nañu ci wàllu piano dañuy am don d'habitude comme yàlla du tëj bunt tëj fenêtre xëcc rideau toujours dana am benn benn don bu mu leen di bàyyee bu ñu développé. bi mm-hmm. yéem nit ñi. donc euh, Pape aussi tamit ñu gis ko loolu tamit ci wàllu euh, instrument yàlla may ko muy jouer batterie et tout ça bu ñëwee ba teg. dañuy gis ne il est au devant de la scène. moom mooy yore batterie bi mooy décompté moom mooy yore rythme bi. Hmm. tu vois et vraiment mu nekk loo xamante ne c'est euh, c'est à saluer mag ñi dañu liggéey ci musique loo xam ne du deñ ku taxaw di leen seetaan noo def nga fan leen. Hmm. parce que yemuñ rek ci way rek. Hmm. mais dañuy yokk ci way wi dara danañu mën way mais danañ ci yokk dara. andi naa leen Youssou Ndour ba muy ji way di hmm. jouer instrument percussion ndax boobu ba super étoile doon tukki Mbaye Dièye Faye rek doon dem hmm. mais da nga gis da doon secondé Mbaye Dièye Faye Ousseyn Ndiaye da doon ñëw di secondé na Ouzin day aw ba pare daw. keroog loolu la loolu kii doon wax fii bi ngay wax nu mu tudd. Ah euh, ki ñu Yoro Ndiaye. Yoro Ndiaye mu ngi naan xale yu bëri buñ ko ñëwee seet si li mu leen di conseiller mooy jouer instrument. exactement parce que boo jouer instrument daf lay yar. Mm-hmm. day tax nga am respect da ngay éducation la daf lay yar. ma ah, daf lay réglé. Mm-hmm. donc nga gis ne kooku bu ñuy jouer ndax booba tukki dafa métti woon yóbbu fuul lu ñuy wax fuul mooy kii si yëpp. daf doon métti yóbbu trois percussionnistes de batteurs wala benn da doon dix. Ah, donc il voyageait léger. léegi dañ doon dañ doon mottali bu ñu joué ba def break rek Ousseyn Ndiaye wàcc gaaw daw ju bàyyi aw ba ñëw seconde si. te mbëg su ko defee euh, kii di mbala kee laal cool waaw voilà Youssou di accompagner bu ñu paree Youssou teg galangam dabaat way dañu ñii dañu liggéey loo xam ni ci musique ba ilaa yow mi diini kenn munu leen ko fay. dëgg la waay ndax foo xamante ni fukki nit a koy def fexe nañ ba ñoom juróomi nit. Mm. at liñ leen doon fay doon nangu juste rek pour que àdduna gis leen. Mm. ba nangu ba xam tey mbalax. ba tey di ko joué. loolu c'est fort liggéey la boo xamante ne ñun du ñu mës a taay man particulièrement parce que lu may bés bu nekk. ñu ngi wax ci bés bés bu nekk baax na. Mm. mais kan la ñuy toog di bàyyi tubaab tout le temps mooy ñëw di wax suñu suñu musiciens ñooy ñan. nañ dem jàngi loolu. bay wax ñu nit. mën a toog di wax suñu musiciens yi loo xamante ne tubaab la ñuy wax ci ñoom. parce que tubaab bu dëppee caméra am suñu musiciens rek du mës a wax buzz. li muy wax c'est toujours technique mooy dañuy jàngal ñun. donc ñun nañ dem ci vers loolu di mën a teg suñuy artistes di wax ci ñoom. te bañ a yem ci biographie discographie. mais ñu am capacité wu di am lecture musique ñoom li ñuy def lan la. di ko wax sénégal yi. ba noppi tamit di mën a configuration scénique ndax configuration scénique ba may tàmbali ba léegi waxuguma ci laaluguma ci du pàcc boo xamante ne ba léegi dugguma ci. il faut nga dugg ci danaa ci dugg. Mhm. configuration scénique. Mhm. dafa am mooy tax artiste bi am repère. Mhm. ndax artiste dafa am repère ci kaw seen bu xasee ba taxaw nii ci kaw seen. du gestu. balance nañ lu ñuy répété li ñuy répété. Hmm. ba filage ko ba pare. moom bu xasee jàkkaarloo. fi leen rek ko intéressé. Hmm. dama leen di jox teg hmm. ndax Pape ñaaw dëgg ci moom laay wax waaye loo xamante ni Youssou. seetlu leen à chaque fois bu invité kenn ci kaw scène. waaw daf lay joxoñ public bi daf naan la nii. parce que dëgg la da ngay am pression. jàkkaarloog moom Youssou Ndour. jàkkaarloog super étoile. donc boo def leen nag doo xool public bi Youssou ngay taxaw di. waaye wala musicien ngay xool. toujours da ngay gis moom ndeysaan daf lay orienté. di nga fay toujours nii ci kanam ça se passe devant. dëgg la. ça se loolu nag ci configuration cynique la bokk. ndax ba nga ñëwee répétition répétition moom ba ngeen répété ba pare. waaw da ngeen jàkkaarloog musiciens yi. mais boo ñëwee ci kaw scène amatoo droit gestu. sauf ngay joxe benn directive. Mm-hmm. wala nga yëkkati loxo teggi benn instrumentiste pour mën a wax ak public bi yaa moom moo xam. Mm-hmm. parce que chanteur arbitre la. Mm-hmm. loolu yërëlam. dëgg la donc moom à un moment donné mën na yëkkati dindi kenn. wax ak dara wala mu wàccee am lu muy wax wala mu wàccee andi kenn kooku dugg kooku bu ñëwee nag. Mm. day mën am pression parfois sa manière bañ a nekk ci gaam bi da ngay suusu day jëlaat way wi joxaat ko refrain joxaat ko gaam bi delloo ko ko mm. mais loolu ñooy dégg loolu gars yi mën nañ ko bañ a xam donc mag ñi euh, surtout Pape Niang euh, moom ci côté boobu macha allah ndaanaan la suñu yaay Aminata Fall ñoo bokkoon fi doon waye la way blues lañ doon def oh Aminata Fall sa voix kon nag loolu oh la la la la Aminata Fall c'est canforé oh la sa voix xaar mbay a y a quelque am na daal dafa am blues timbre vocal ah, bi dafa am blues xaar mbay important xaar mbay dafa am blues xaal mbay boo ñooy man seen wooy day daw sama yaram en fait. waaw parce que parce que mooy li ma blues. ci dafa nekk musique bu am am. ay bu ma luqee. waaw <laughs> blues. tey da nga yëngu luqi ma. ex buy wax ci musique xoolal léppay àndandoo di wax. <laughs> tànk yeeg rek ma <laughs> di nga luqi coro de. xale xamuñu xale xamuñu blues. Mhm. mais blues dafa am. ah non moi j'adore ça rythme blues am. Mhm. benn catégorie la. mais ni leen dépassé. waaye dafa dal. ay waay xaaral ay waay waaw kay way baa ngi naay ndeysaan oh j'adore cette chanson Oustaz dana way bi dugg la neex na de ndeysaan y a des voix rauques et belles bii nii day danay kiiloo vibré loo ndeysaan dama koo ragaloon da nga koo ragal dama koo ragaloon ma nekk xale sama yaay daawul boole wax ndax dama def da nga koy rek. la ñuy fexe kay moom daaw rek. oh. ay do yaay may. lii dañ ko amoon ci cassette yooyu ñu daan def nii di ko tri. ah fii. ay do yaay may daanaka xamuñu lu ñu am. xamuñu lu ñu am. am na théâtre bu mu joué woon naan Marigot Marigot vient prendre son basse bi magnifique ah. franchement cette voix là oh là la là là là man daf may merci da lay envoûté. waaw ah, daf lay envoûté daf lay téye ba pare ëmb la. ëmb la mhm. dafa amoon way baat boobu Ndiaga Mbaye moom la amoon. Mhm. Xaar mbay moom la amoon. Mhm. Euh, Pape Niang moom la am. Euh, ki nga xamante ne mooy Xaar ma Madiaga am na ko. donc Pape Cheikh Pape am na ko. donc ba baat bi baat ay baatu yooyu noonu c'est des baat yoo xamante ne ay baatu biir la muy rëy et macha allah blues nekk na way woo xamante ni xeetu style musique yoo xamante ne Baaba Maal blues répertoire am la bu baax a baax a baax a baax donc xale yi nañu gëstuwaat répertoire yooyu waaw voilà ils ont chanté le blues mais il faut ñu am culture musicale en fait voilà. il faut ñu jéem a xool ñeneen ñi doon def parce que si tu prends là-bas et que tu amènes nga moderniser ko sànniwaat ñu ko. day nooy neex de. te loo ci xamul. blues. ni ku nigérien bi gagné pris yi temps yi ci music award yi nu mu tudd. dama ko jàpp. géré ko loolu gérel ma loolu moom boo gisee mu gën a développé que yeneen xale yi dafa basé wu si Fela Kuti tellement que euh, ñu bëri dañ naan da ko da ko dafa sàcc sax ay yëfu Fela Kuti alors foofu lay inspiré woo indiwaat ko moderniser ko te day neex vraiment mm-hmm. coroon koy seet tur bi tam def featuring ak se rek mais gis nga métissage. musique boo koy xool euh, ñun rythme lépp lu am rythme. Afrique la jógee. Mm-hmm. musique boo dégg mu am rythme muy blues muy rhythm and blues ah muy jazz yooyu yëpp fii la jógee. Mm-hmm. Sénégal amoon na club de jazz su ma juumloon amoon nag quatre trois quatre ba cinq club de jazz. Mm-hmm. léegi pour nga gis club de jazz sax problème la. te jazz nag waruñu koo bàyyi. Euh, cosaanu musique yëpp la. parce que foofu ak gis naa ne tamit ciy yëngu dañ leen xaw a mettre de côté. boo demee ay comme nga dem boori géej dañ leen fekk yor seen yëf toog fa. wallaay union réew quoi. absolument di dundaat beneen. dañuy wéet parce que musique bu bees bii mu xew. Hmm? noppi dafa yàq wax naa ko bës hmm. ne leen du ma def mu critique boo xamante ne day yàq carrière musicien yi. Hmm. teel na mënoon naa tàmbali loolu. ndax may na ma ko. mais teel na dañ nekk di defar. donc dañuy def ay orientation nopp yi dafa yàqu ndax ambiance li fi nekk nii du du musique ah. hmm. ambiance la bu ko nekk dugg ñun ñëpp labo ñu jël musique yi tas ko ambiance la ki fi nekk te dañuy génn ngir na neex rek na neex rek mais musique dëgg ñi koy tëgg mag ñi ñoo ko téye ba tey xale yi am na ñu ko ci def mais bariwul bariwul mais ambiance na sa fa dëggin ho ho xam nga ambiance toog nii ambiance dafa neex nag ba nga xamante ne mais baaxul nag neex na de c'est pourquoi eh. parce que bu boobaa man parfois sama kër moom lay teg fecc bay ree sama bopp waaw mais mën nga fecc yàggee ñu ngi doon fecc waa démb peut être teg na fay faatu géwél yu neex waaw musique moom fa mu nekkoon jógu fa ba tey mm-hmm. c'est que lenn rek la ñu war a yokk rek mooy li ma toujours ñu permettre tamit musiciens yi ñu mën a tamit di jouer parce que c'est pas parce que tu joues rapidement que tu joues bien bokkul mm-hmm. loolu sax benn domaine bi ju dugg musique bi gën a jafe tëgg ci musiciens yi mooy nga jouer nit ndànk waaw donc vraiment euh, <laughs> merci Thioro mais. ci li ñu mën a li ñu mën wax léegi ko jox mais garaawul Thioro danaa danaa daaneel ma ma ma gàttal léegi daal li am solo mooy ñu mën a waxtaan ñun suñu biir ñu xam ne musique ñun ñoo ko jox orientation xale yi nañu gëstu na nañu wàññiwaat pour man BPM musique bi. mooy vitesse musique bi. ñun ñu ne waa gàlle bi nee nañ. pour nga parce que dañuy def c'est perdu de vue pote ñëw. d'accord nga wala d'accord waaw d'accord mbasaa mbasaawal comme ci musique nga ne li may conclure rek te loolu maa ngi koy dénk musicien ak waykat yu bari bari bari mooy nañu wàññi nañu wàññi ko wàccee xale de temps yi jëw lañ jël. musique bi li may ñaan rek li ñuy wax on peut pas mënuñoo def luñ fi deful woon. mais mën nañ ko wàccee ba musique bi du yàqu. parce que vitesse bu ñu nekk nii. Mm-hmm. dafa gaaw mais non fi ñu jëm ça va on va vers les ay musique au torop. donc nañu nañ ko wàccee waat andi waat nopp yi pour permettre gars yi jouer ñu mën a déggaat instruments yi. parce que y a des instruments qu'on n'entend plus. ok d'accord daal bon ko waxtaane mais dinañ ci andi. chaque jour ñu cof dara. mais nañu wàcceewaat musique bi dafa teg trop. nañu ko wàcceewaat yéen ñi xale yi déglu musiciens yi seetaan déglu leen extrait def suñu important la leen di wax. parce que musique moom man parfois dama lay déglu sax da ngay wax terme yoo xam ne dama naan lii lan la moo ko sax xam. mën nañu ko wàcceewaat. Mhm. musique bi buñ ko wàcceewaatee rek mu dal dafa teg mën nañu ko wàcceewaat. buñ ko wàcceewaat non toog rey na ma donc toog rey na ma merci beaucoup en tout cas ça fait plaisir dañuy jëw ñoom ñaar. waaw dañuy jëw. dañuy jëw waxat waxtaan suñu biir. mais tonton Garmi maa ki may jëwanteel nii mbaa xam nga ne da daan football. ah. dama lay wan photo bi. seetal lii. coro daal démb damaa dugg ci internet bi ñu naan ma ana photo coro bi ndeke moom avant Demba ko doon woowee poté ñëw na eh, eh, ndeke Demba lan ko eh, doon woowee ñëw li nga sañ sa tey poté c'est joli <laughs> xoolal coro poté ñëw na jàngal coro jàngal coro li fo xoolal coro bi mosoo yu xool noonu li xale waaye yow imaam mi na arrêté nag ngi kii coro la. lan may nax kii. de grand frère laa ko doon woowee depuis démb coro la. <laughs> waaw coro la di. sëñ Babacar. bokk balam. mu leen ne mooy xale yooyu nga xam ne du ñu toog du ñu génn. boo leen tooñee ñu gàddu bal bi ñibbi. te <laughs> boo leen naree gagné ñu tas match bi. <laughs> man lii choc ci am depuis démb. léegi kilifa laa ma. choc laa ci am depuis démb tonton Garmi man kilifa laa wax bijou mi. donc moom dañ ne prix mu ne footballeuse. gàmmu faala ma waxoon loolu li muy bon. ci bërët nga di footballeuse. footballu jigéen xewul boobu moom boobu fekkee ko yor balam moom yaa ngi. cëy waay. Coro capitaine nga woon xanaa. wala arbitre. ah Coro. du arbitre de ñoom seen maillot yi lii seen maillot la. gisoo jigéen ñi ne ci ginnaaw. lool ga dëgg mais ñee moom ay amatrice lañu woon lii tournoi la woon rek ñee fale ko ñu joué mais man moom football dama ko bëggoon def ko sama yëf sama profession bu ma wax wàccee école topp mais di di football imaginaire sama yaay daf ma daan dóor njaay indi la mercredi découverte ñu lay interview <laughs> ngay jàll ci di ngeen interviewé ku neex <laughs> ay coro xam euh, billaay capitaine la woon laa yaakaar ne li taxawaay capitaine nga taxaw. bisu nag balaa ngaa tàbb ci anniversaire yi. Mhm, Euh, semaine bu nekk damay dem ci ñaari géwël yóbbu leen sama trophée. waaw tey foo demoon dem naa ci Ablaye Mbaye Peex. Mm-hmm. ak Khadim Samb. ndeysaan dañu projeté rek seen seen ñu wane ko ndeysaan sama sama sama sama kilifa yu tedd yi. papaay fa ci peex. ñoom itamit macha ñu sargalante ak man waxante ak man yu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. noonu la maa tam seet ku mel ne Khadim Samb. Ah, daal. naa rafetlu chaque semaine may indi la. waaw tonton Gar mi ñun lii daf ñuy neex ndax trophée bi ñun suñu trophée la. suñu trophée la waaw sañse na waaw am na am na sañse tina <laughs> di wax ne nag kontaan nañu lool di di joxe nag suñu njaal ci ci ci alaaji Mbay Jax mm-hmm. mu Sëriñ Fall mm-hmm. xam ne mook alaaji Baara mën na nañoo bokk baay moom bi mu génnee àddina sëriñ bi dana ne ñëw léegi Touba mm-hmm. xool na ba mu yàgg ngir xër sax mu ne sarax si nañ ko defee fii ci tubaa ba mu jëm mu ne léegi nañ ko naa ko delloo njabootam Mbay Jax nag nekkoon koo xam ne kii taalibe la li mu dimbali ci àddina moom kenn mënu koo lim baba tray papaay xaadim baax loolu yiw ànd nag ñu dénk ko nag euh, doomu sëriñ fa mu soxna waalo macha allah ak soxna Kiné Mbay Ja mu baax ni ñu ngi leen koy jaal daal mm. euh, mbakk yu def fa teraanga yu am solo sëñ Bass Abdou Khadre tamit def ko fa ak ñeneen ak ñeneen kenn mënu leen lim waaye moom dal ko juboo nag ay bokkam la sëriñ Bamba rek la gëm mm-hmm. dem na nag ci ci ci ci ndigalu suñu borom waaye daal bàyyi na fi mbaax mm. bàyyi na fi njaboot bu njaboot bu yàlla baax ñu koy jaal famille bi yëpp di leen ñaanal jàmm bisu Ndiaye. jërëjëf tonton Garmi. Mm. Euh, jërëjëf ñuy gën a jaale famille euh, Mbaye Dia rek euh, di leen di ko ñaanal yàlla xare ko aljana comme ni ñu koy waxee bu ñii di jooy ñee ngi am na ñoo xam ne ci dëj lañu nekk tey mais am na ñoo xam ne tey la seen anniversaire. Mm. ñu commencé ko ba su jumeaux yi Ibrahima et Moussa de la part de leur maman adorée Fifi depuis ñaari tali joyeux anniversaire à vous joyeux anniversaire à ma fille chérie longue vie à de fer totale. dans tes études beneen anniversaire la bii bésu jumeau yi la voilà happy birthday à à toi euh, joyeux anniversaire à Khady Ndiaye non Awa alias Wenita mu Serigne Babacar Sy caatu toi de la part de ta mère Awa Ba happy birthday Ndeye Amy Laye de la part de toute la famille euh, depuis Cambérène joyeux anniversaire à Arfan Diawo fils de Maïmouna Konté et de Moussa Diawo Happy birthday à Adama Madame Fall longue toi on te souhaite beaucoup de bonheur de la part de tes amis et de toute ta famille Happy birthday à ma fille chérie Ndeye Fatou Sonko grandis en âge et en sagesse de la part de ta bijou Happy birthday à Adama fille de Tata Sadio toute la famille depuis Kaolack et Dakar joyeux anniversaire à Fatou Cissé Ngari Madamel que du bonheur pour toi que de bonnes choses joyeux anniversaire à Ngoné de la part de Fatou Kiné depuis l'IPG que du bonheur. Happy birthday à Bathie Seck de la part de Siragnon. joyeux anniversaire à kii sa anniversaire la. moom ñu ngi koy ñaanal vraiment Seck euh, gudd fan wér gi yaram de la part de Siragnon. donc Bathie vraiment yow moom dama lay ñaanal euh, la total ah de la part de tout la famille Seck ah at euh, famille bi yëpp bokk yëpp at Sira Niang ah mhm. Korma Maysa ah yaayu bébé As et euh, dundal moom anniversaire am nag samedi la bijou. samedi la kan nu mu tuddati ma xam fi ma yem. ah mm. Bathie Seck. waaw yaa ngi ci Bathie. ana bàcc waa mi ngi donc joyeux anniversaire à mon bébé Aïcha de la part de la maman de Tata Didi de Tata Feli et de Tata Fatim de Tata Thioro c'est de ma part aussi Aïcha moom sama princesse joyeux anniversaire à toi bébé tout le monde te souhaite une très longue vie et remplie de bonheur voilà donc c'était l'anniversaire de Tata Thioro euh, ñu eggali ba Euh, joyeux anniversaire à notre maman Tako Salane euh, de la part de tous tes enfants c'est également de la part de Corombar. waaw elle c'est la maman de Nafi Dieye. ku ah. sama yaay la. sama bàjjen la tëb kay. donc euh, joyeux à toi. mère Salane ñu lakkal la torop doo ñu may dara yow moom benn coup bu ñëwee bu dig ñu yónnee 100. dundal ba doyal yaayu jaaji ak nenne yaayu mami yaayu ndey Maguette macha allah madame Dieye dundal rek yàgg fi di nekk suñu anti-stress on t'aime très fort. joyeux anniversaire à mon ami mon mon ami mon marabout Ahmada Mbacké euh, sunu xarit. ah ñun ñëpp euh, Jadid chérie Jadida comme ni ma koy waxee euh, Sophia sa femme lui souhaite un happy birthday toute la famille euh, Mbacké Kara ak Thioro aussi di la souhaiter un happy ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér xam nga dama ay xarit yoo xamante ni dañu jël sama rakk ji adopté ko def ko seen doom di ko teg ci yoon di ko jubbanti di ko jàppale te moom ak magam Mahfous Mbacké ci lañu bokk donc awuma seen fay ne serait-ce pour ça dama leen gën a bëgg ci sama xol xol dundal ba doyal Mbacke Balla. amiin Ahmada dafa baax. Hmm, ak euh, borom baax frère lañ happy birthday à yàlla guddal seen euh, madame Kane Maymouna Si sois heureuse ma belle euh, forte femme et aimable de la part de ta chérie Astou Kane. joyeux anniversaire à Dolopi Sikap sa famille ak sa xarit yëpp un happy birthday. Euh, joyeux anniversaire à toi mon fils Mohamed Taha Bey euh, mooy dernière photo yi Alaaji Malick euh, le temps que muy egsi dafa mel ni amoon nañ perdu de vue aussi mais seenu ma ko daal mel na mu ko fàttee dugal voilà donc happy birthday à Mohamed Taha euh, deux dernières photos yi euh, Bey grandit en âge et en sagesse yàlla defal def la nga nekk mag bu am iman ixlaas ak islam incha allah de la part de maman donc bu fekkee photo bi pare na ñu ñu xool ko euh, soog a jàll ci euh, perdu de vue yi donc deux dernières photo yi nga xamante ne moom lañ la mujjee envoyé El Hadj Malick ndax anniversaire yi moom chaque jour day gën a yokk rek ku nekk day yónnee fu ne message ne nañ ma souhaiter un happy birthday ça fait plaisir nga toog sa di seetaan ñu jékki-jékki ne la joyeux anniversaire mu jàll ci télé bi ñëpp seetaan la nga kontaan donc voilà Mouhamed Taha mi ngi noonu yaayam moo koy souhaiter un happy birthday di ko ñaanal mu nekk mag bu am iman ihsan ak islam incha allah longue vie à toi bébé euh, joyeux anniversaire Astou Kassé de la part de Mami Thiam et de Awa ñoo lay souhaiter un happy avant ñuy tàggoo euh, bi ci jiitu mi ngi tudd Ibrahima Ba moom depuis 28 mars la ñu ko gëj a gis 2021 bi muur nga ngandigal la jóge woon bu nekkante ne gis ngeen ko mun ngeen woo euh, monsieur Boubacar Ba au 77 679 73 64 wala 76 585 67 08 wala au 78 421 50 59 donc kii mooy Ibrahima Ba depuis 28 mars lañ ko gëj a gis ba léegi donc waa këram ñi ngi koy wër am na keneen koo xam ne waa këram ñi ngi koy wër aussi moom mi ngi tudd Moustapha Guèye 30 euh, ans la am bi mu jugee këram depuis 2017 la woon ba léegi ñi ngi koy wër. Euh, cité Lamy Thiès la nekkoon donc bu dee gis ngeen ko rek ci diggante bi xàmmee ko mun ngeen woote au 78 181 81 86 wala 78 429 422 93 40 donc euh, Moustapha Gueye 30 ans la am réeroon depuis 2017 ñi réer ñuy ñaan yàlla nit leen ba seen ay njaboot gis leen ndax disparition moom dafa bokk ci li ma gën a ragal sa mbokk wala sa xarit jékki-jékki rek xamatoo fu mu nekk c'est très dur donc ñi réer ñëpp yal na leen yàlla feeñal. oustaz ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw jërëjëf Bijou amoon mbégte ànd ak yow. ajaratu coro bu baax ni ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yal na fi yàlla dolli jàmm amiin yaa rabbi ziar euh, suñu mbokk yi ñu doon topp yëpp man moom xam nga dama xaw a bari ay yaay Mamadou Mbaye gan mi nee na ma coroog dama laa ñemee <laughs> macha allah ziar ñëpp ñaanal suñu yaay ji sa àllaaxira yàlla xaare ko ak euh, mboolem neewu jullit yaayu coroog ñëpp rek macha allah yàlla jéggal leen yërëm leen xaar leen aljana si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu way jur yu góor yeeg ñëpp ñu jiitu macha allah ziar bu baax euh, Ndiaye Adja Oumou Idrissa Gueye ak yaayam maam Khady Ndiaye Cheikh Yacine Doucouré Baye ñu ngi koy bàyyi xel moom itam di ko ziar ak Bamba ak njaboot gi yëpp Adja Mariam si madame Sarr moom koy ñaanal yàlla moom itam gudd fan ak wér Adja Fifi ñaan maam jigéen dooy ak sama maam Awa Coy fële sa yoof ba tabaarakallaahu ak njaboot gi yëpp yàlla defal leen sutura teranga àdduna ak àllaaxira si barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ziar tamit suñu lépp fa tabaarakallaahu première dame Adja Mariam ñaanal ko yàlla moom itam yàlla yokk ko sutura ak teraanga ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp ñaanal sénégalais yëpp yal na ñëpp am jàmm yal na ñëpp am xéewal yal na ñëpp am sutura barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koor di ñu dëgmal yal nañ ci dugg bismillahi rahmani rahim bisu génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin yàlla jéggal ñu nangu suñuy koor ak luñ ko jërëjëf jërëjëf euh, Oustaz Assane Alaaji Malick anniversaire yi dafa am ñaar yu ñu fàtte rek happy birthday Mariama Tumbu de la part de Badouli et toute sa famille ca kaw a kaw la nekkee woon gisuma ko woon voilà ak joyeux anniversaire à Abdoul Wahab de la part de ta chère épouse Madame Faye Fatou Kiné Diouf ta famille ta belle famille tes enfants tous te disent longue vie de bonheur Adja Ombeliko moo ñu ko fi yónnee suñu sœur boobu ban laa ci yokk Mimi Ba Mimi Ba jigéenu jigéenu Ndiaga Seck oustaz uh-huh. Mimi Ba Mimi Ba joyeux anniversaire à am na photo dana jigéen mi ngi euh, jigéenu jigéenu jigéenu Ndiaga la ma nga ma nga France. moom mhm. tam suñu soppe la nee vraiment bëgg na équipe bi lool. moom tam ko ñaanal yàlla na dund at yu bëree bëri. amiin amiin yàlla yokk jàmmam yokk suturaam. amiin amiin boo ko fekkee Paris ma ngay gën rek te gën rek am solo. amiin wallaay ñu ngi lay ndokkeel di la ziar di la jàmm. jërëjëf amiin jërëjëf tonton Garmi ñu bàyyi la nga tàggoo yow it. waaw xanaa di wax ne rek euh, ñu ngi maa ngi wax ne àddina bi yëpp ci kanam tuuti ci wareef ñu ci déglu suñu mbokk moom nga xam ne mooy Omar Diaw Seck bu Ndaraw ndax moom la ñu invité ki nga xam ne kii mooy Evatra ak équipe bi nga xam ne moom lay àndal ñoom ma nekk ñoom ndooyu baax baax te Omar sekk Diaw boo ko dégloo da nga da da ngay daf lay am lu bari lu mu lay apporteel ci xam-xam te loolu lu am solo la yoo xam tamit waa Love ñoom tamit kontaan nañu ci ñoom ñu ngi leen di ñaanal jàmm lu bëree bëri. di wax ne daal euh, euh, euh, Bijou Ndiaye. Hmm. di wax ne daal réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. saas nag léegi dem na ba ñaanal première dame jaadu na. première dame bu ñëpp defee ni moom bu nu wooree rek woor yu baax yàlla na yàlla guddal fanam su gi dëgmalee daf nuy nemmeeku danoonu seet hmm. waaw nu woor ci jàmm Ah. yal na yàlla guddal fanam. macha allah publiquement laa koy wax Amadou Mbaye Garmi. Hmm. kuy def lu baax. Hmm. dañu lay wax ni diw mi ngi def lu baax. dañ cee bokk mu boole ñu ci. yàlla mi am jàmm yàlla yàlla yokk jàmm. maa ngi ko ndokkeel lu ba di ndokkeel tamit bu baax sama jigéen Dior Diagne. di ko ñaanal fan gu gudd gu ànd ak wér. ak Yaamaan Albis mu baax mi incha allah maa ko ziar di ko bëgg di ko ñaanal jàmm. di soir. Hmm. mu ndeel dina tàbbi ci paix ak hmm. jàmm. ci mooy jëkk jàmm mooy mujj. wallaahi nag ko ñëpp seetaan émission bu mag la ce soir. jërëjëf tonton Garmi bangoon ak jàmm ñu gisante ak ci wëndeelu sunu émission la. neex ñu lool ñu nar a toog seetaan ko. Euh, Exadex. oui. ba kañ. Euh, déwén ah. ah. <laughs> sori na di. Euh, yow lenn après kii léegi après kii. loolu déwén même année bi la di waxin la rek. ah taalu la rek <laughs> wala jabar ji la. maa <laughs> loolu ma stress nii ah? ba boo ah, ma jaaxal wala sama yaay. man damay ñibbi nii. dañ féexal ko. waaw bilaay du ko wàcc nag. mbëggaleem rek ma man daal sama bu yaay rek ma wóor na dëgg la. non am na yeneen yu dëgg. sama yaay daal dinañ la jël tur bi après. yaay moom yaay moom. Ah. ak say des. Ah. kenn du moom ci ndey. wallahi wallahi waaye nag tànk xëdd. Ah. ak yaay sa fi déedéet. bàyyi ma xaarandi kër biisu. waaw ñëw leen bu ñu defee quartier général ba wàcc. waaw ñu dem kër biisu mu tegal ma. waaw man loolu sawar naa waaw moom sama deret la moom sax moom wóolu naa ko moom jibi moom sama mbokk la sama deret la. sa mbokk la sañ naa ko sañ naa ko. donc voilà euh, biisu merci beaucoup donc incha allah di dox daje di jox gars yi dox daje dox daje. incha allah ci biir euh, weeru koor bi rek quartier général ñu. dugg ceeg jàmm di ñaanal ñëpp jàmm comme ni ñu ko waxee rek yal na jàmm yàgg ci réew mi ah, ndax jàmm ci la ñëpp xaj ku ko mooy loo xamee ni yaa koy may sa bopp mhm. kenn du la ko may say des noo xamee lii ah yàgg ak mag ñi rek yàgg ak yéen di leen dégg di leen déglu mhm. dama dama dama waxtaan ak jaraaf dem mhm. jaraaf yi sulo mun na ma ñëw nañ fi jël intérêt mën na pour tàbbi ci jàmm ma ne ko jàmm jaraaf ku ko bëgg yaa koy jëkk a sàkku boo ko sàkkoo nit ñi delloo la ko. boo ko sàkkoo ci ñi doo ko am. dëgg la nit ñi dañu war a xam loolu. Hmm. koo yéene jàmm te xooli ko bëtu jàmm dalay xool ci jàmm. Hmm. jàmm rek lay bëgg. mais boo ko xool ci leen dalay xool ci loola. moo tax jàmm am solo. te réew mi jàmm la laaj. wallaahi parce que kenn mënu freiné kenn ci leen. dëgg <laughs> wallaahi ay dëgg. su nit ñi bàyyi seen bopp ak kii laa hmm. wax. dëgg du ñu tatonewul. waaw doo ko may lii rocc lii dégg ko lii bàyyi lii déedéet boo ko joxee lépp. kenn mënu la freiné ci dara. Mm-hmm. moo tax jàmm am solo. wallaahi c'est important bu jàmm boo ko joxewul doo ko am de. déedéet da koy jox ñu rendre la monnaie. waaw wallaahi wallaahi c'est important. jërëjëf tonton Galmi chaque jour ñu jàng ci yow lu bees. ku ne sama yaakaar dafa tas. Ah. boobu da nga yaakaar lu ay yaakaar. Mm. <laughs> ku ne sama yaakaar dafa tas. nga yaakaaroon ni. Ah. donc lu nuy waa Tivaouane gi yëpp du nuy sama Cheikh Anta Seck ak sama doom Fat Diagne sama taaw foofu ca euh, Tivaouane sinon pour tenue bi rek mën ngeen woote 77 894 26 68 77 894 26 68 di wax sama waa ji Baye Cheikh namm naa la namm nañu ko maasal ah namm nañ ah, ko nag nañu nañu gànn waxuñ ci de lay namm nañ ko mbay namm nañ ko lool ah? ah ah munu fee manqué sax moom namu nañ ko trop franchement merci beaucoup Exidex euh, à très bientôt ci télévision Futur Média Thioro Mbaye yes merci beaucoup donc comme tout le monde xam naa ni bii moom mooy yeewu leen Demba yeewu leen amoo Demba leen bi mujj avant Ramadan bi pour man en tout cas <laughs> merci beaucoup ça fait un plaisir ànd ak yéen ci yeewu leen bi boobu ak léegi euh, on va se retrouver sûrement après le Ramadan incha allahu rabbi euh, en profiter pour baalu ñëpp ak ñaan suñu borom may ñu weeru kooru jàmm ñu dugg ci jàmm suñu borom def ci poche yëpp dara yal na aajo yëpp faju feebar yi wér ci barke weeru koor euh, ñu woor ak jàmm bëri ak jàmm te fekke ay koor yu bare bare bare incha allah euh, j'en profite pour remercier Soxna Ndour jumelu Titi borom établissement Bokk Jom sama grande sœur euh, Magu am Linguère Fall euh, pour ma tenue de ce matin j'adore c'est très joli teranga yi bari na merci beaucoup di fàttali ne rek ñi ngi itam ci jëfu université bi parce que xam ngeen ni sañ mun taxa dafa taxawal ay affaires yu baree baree bari te bu ci ne suñu koppar war cee dem ñun cantaakoo ni ñu ngi war dem yóbbu jëf ji bii jox leen ma nag. pouponnière yi jeex na. jox leen mu dem yóbbu pouponnière yi tey jeex bu ma paree ci pouponnière yi rek lundi ma engagé ak yow. ci yëfu ci yëfu cant am benn problème. donc Fatsi. Fatsi yaay Ousseynou Assane. Mhm. alors comme Thioro ni mu ko waxee collecte de dons bi tey la ñu koy arrêté donc kuy joxe don tey wooteel ci 78 196 34 34 am nañu Orange Money actuellement euh, bu ma calculer li ma fi jot a jot ci don egg nañ 5 donc 1 manqué suñu objectif en espérant que di ngeen activer affaire yi tey euh, pour que 6 bi mat en tout cas commencé nañ commandé déjà li pouponnières yi bëgg di ci gërëm bu baax Serigne bu baara mbuub électronique vraiment geste bi ma defal nu mu ma touché mun na ko sax comprendre góor gi si bien encore merci non seulement daf may may ay don ba pare joxaat ma ne ma lii passé ko bu ngeen di dem góor gi man aw ma sa fay merci beaucoup vraiment ñi ciy jàpp ñëpp ci collecte de don bi xam naa ni vidéo laa leen di defal remercier leen yéen ñëpp yal na leen yàlla fay yéen ñi ci bëgg a jàpp c'est possible 76 euh, mun ngeen ñu woo 198 68 10 am na Wave am na Free Money tey mooy dernier jour euh, de collecte bi bu ko defee euh, samedi ak dimanche ñu dem yóbbu dons yi ci pouponnières yi incha allah waa 10 ak 11. tonton Galmi dañuy ñëw. di remercier bu baax Baye Modou Kane Massata ak Massa Yenda pour tissu bi ak tenue bi 78 euh, 77 euh, plutôt 218 00 19 mi ngi foo leen fa dem rek mu ñawal leen lu rafet loo xam ne du leen ko gisati fenn yéen ñi ñuy seetaan ñu ngi leen di remercier bu baax di leen baalu ak encore baal nañ leen yàlla nañu yàlla boole baal di ñaan ñu dugg si koor gi ak bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabil alamina yàlla nangul ñu suñu koor ñun ñëpp ñuy remercier bu baax équipe technique bi Malick Tock euh, ñoom euh, Medoune euh, per Assane Libin ñëpp ñu ngi leen di remercier ñu jàpp ci yeewu leen bi ba mu sotti demain jéena ba Seydou Ba sera avec vous mais tout de suite bu leen quitter poté mi ngi ñëw ak yeewu leen plus mu gën a neex